suratu xasas mu saaru xasas maa ngi ci kër Maka la wóoru saa Maka la wàcce illaa illa li farada alayka alquran la dugg daa ma ali ko ko jur ko la wàcce waaye li naa ci naamu ci dara daa daan tax jaahina waaye moom safan juróom yaar la aw samaanam ci juróom ñett wa safan nag juróom ñett gaa yaa ci daa def bismillah sax sama wax sama ci tudd tudd wóor arrahmaani ka yaa ñu xewal ñu naa ñëpp jaar ñu yaar yi ka yaa ñu xewal ji daa ñaa waxee saa siin miim saa siin miim laa yàlla alam waaye xam lu muraad yi ñu ñamam de laakin bokk saar laa alam lu muraad yi moo yit ci cireem de ànd ak ko di kaawe ñu ci ay kaawe baa mu ne jaar xuraan nag de mat juróom ñaar fukk ak juróom ñaar waaye xaraf yi fukk ak ñeent la sirrun xasin xataa kalaamaro mooy xaraf yi nga xam ne ñoo nekk ci baat yi waa bopp saar yi rek kaaf haa yaa ayn saar moo ci jëkk wàcc ba jibril wàccee ne kaaf yonent ne xaraftu mu ne xaa mu ne xaraftu dem jeex jibril xam ne moom sax na bëriñ ko firiw rek tilka yooyu da aaya ayatul kitaab ñu aaya alquran al mu biin nga de ak jiral dëgg rek nat loo dana nu jàng nat loo dana nu solo alayka ci yow muhammad min nabayi musa solo musa wa firawna firawna bi laqi bi dëgg de xamu ñu raw ni ñëw ñu dañu gëm de maa ngi lay nett li naq fay yonent yàlla musa ak firawna nett li dëgg rek ci nga xam ne dañu gëm ndax ñoo ñoo koy jëriñoo inna firawna naka firawna ala am bëri woon na mu ci dara ci suuf si misaal Firaaw na dafa dawoon ca Misra daw bee woote yàlla wa jaala tam def ah ñu Misra si am ñu kuréel kuréel ñoom Misra mu séddale leen ay kuréel kuréel kuréel bu nekk mu am lu leen liggéeyloo ya sax yam dana mu dooral waaye fa gën kuréel mbirum ci ñoom te mooy banu Israayla yi sax jiw dana mu rendi am naa moom doom seeni góor waaye sax yi tam dafa Misra am aw jigéen seen rek bani Israayla nag jure yoon bi yàlla Muusaa bi ñoom la gën a daadal doom ci góor yi ci juddu ñu rendi doom ci jigéen yi ci juddu ñu war def jaam de ndax waxi benn bu xaar bu ko waxoon ne doom ci góor yi juddu ci bani Israayla mooy demee sa nguur de mu ne ba léegi sama nguur du dem la góor bi ci juddoo ci ma rey góor bu juddu ci bani Israayla mu rey ba rey la ci ñoom juróom-ñeent fukki junne ci gone yi juddu gone yi juddu lu jiitu ba muy dogal dogal boobu rey na ci ñaar bi ko ginne rek indi woon na ko moom saaw na daa ne kon moom naa si ñoom kaw yàq ña suuf rek xam nga loolu day na ci yàq ak suuf de yàlla dafa bëgg ñu di def ak na def benn bés laa ngi daw giraanam yaa xam na ne dafa doon mbir noonu xam nga ne ma ngi doon yàq suuf rek safaan na la nga xam ne mooy mooy yàlla na ma wanu lu dana na ma am na mun naa bu nu xewee am na nit ñaa su dee foofu daal di def na leen faral di suuf wala ñaareel kan def leen ay matan yu di ji wala ñaareel kan def leen alwaari si nañu koy doon nguur ak faram naka def fekk yàlla moom ñun ñuy xeer ñoom la bëgg a jox xéewal ñoom la bëgg a def ñu di ji ñoom lay danu loo nguur ak faram na ak li ko faram na bañ bañ loolu yoo xam ne wala mot na kon faxal la ñu ñaareel si dara di suuf. wala mu kenn tan jàppandoo loolu ñu leen fi leen ci suuf si Misra saam te ñoom ñu ñu xeeb danaa leen may nguuru Misra ak saam de wanu yatan wan saraw na gaa na waa amaana amaana jaasam wa junoo de uma ak leen tëri yee ñun ñoom maa kaano lañ nekkoon yax saraw na ragal de te saraw na amaana amaana moo doon ci ras saraw na lañ doon ragal ci xale bu góor bu juddu ci bani Israayila lañ doon ragal danaa leen ko wan de waaw xëy naa tan yakkiiwal ila ummi Musa jëm te ndeyi Musa ndeyi Musa nag ba mu juddee Musa ndeyi Musa Yohanisu la tudd Musa ibn Imran Imran ay baayam mu judd ca atam ray ma rek yàlla ne ko am na kamiran bi ardi ngam falal doom ji ay saa xum ci ngam rayal ñaari ci moom faa xii xani ko bigal mi ci jikk ga rek nampal na ko ñetti fan kenn kenn yëgut ne jur na doom waaye gannaaw ba xelam dalul rek yàlla ne ko bu ci sa xel dalul nag sànni ko ca dex ga bàyyi ko man de wala taxaaf yi bu ragal ak labam wala tax sa nii bu jàq ci fasanti ko moom dinaa naka nun yàlla raddoo way delloo lañ la ko raab doo way delloo lañu ko moom Musaa yi de mu jëm ci yow jaay na way jëleen ko ñun Musaa yi ñëwee yàlla ne ko sànni ko yoddax ga te bu ragal dana la du la bul jàpp ci fasandikoo bi nga fasandikoo moom danaa la ko delloo si mu di am yonent de yàlla rek a mën loolu mu nampal ko yetti weer Musaa di jooy dara noonu ya amaluñ ko dara day namp ci bés muy muy muy màgg ci bés di doom di màgg ci weer di màgg ci weer di doom di màgg ci at waaye rek bëgg gën ko bëgg tax na xelam dalu óolu ko yar daal léegi day raw na jot ci mu daal di ko daajal gaal nag dem sànni ji ko jëndax ba rek Habib Habib bu na jaar bi nga xam ne bi nga xam ne moo doon ab ministère yoon bu daan defari gaal wala ñu ne samoon la tudd ñëw yaayu Moussa woo ko ne ko dama nga defaral ma gaal waxande mu ne ko noo koy defee mu ne ko dama jur doom bañ Firawna rey ko ma bëgg ko def ci gaal ko ci géej gi koo ko defaral ko gaal ga gannaaw bu mu ko jéema weer te mënu ko ni la tegoon ci faaw saa mu defaral ko gaal ga indi ko nag ñu laal ca kotoon tëral ca Moussa tëj ko jur ko ko doon ci jiital bi yëpp dem sànni ko jëlee lu Misra rek kon faqatahu te fekk ko ala Firawna nañ Firawna bay sànnee gaal ga rek guddi gën ko ne sànni ca dugal ga rek ko Firawna for de ñu indi ko teg ko ci kanam Firawna ñu ngi musu ay baaraam sooru ci génn yaa ko nit ña mu mujj nekk yow ñaa gën a dugal ñu noonu Firawna ko for lu mu ko doon fore nag mu mujj di noonam boo xam ne moo koy xalal de loolu taxutoon kay mu di ko for ndax ko foroon nit mu nekk doomam waaye la mujj loolu laam gi laama xëy laama xaatubasi la ko ñun mbayam di wax la mujj rek mu mel ni moo taxoon ñu def ko ne loolu taxutoon dëgg-dëgg mu for ko parce que foroon ngi am doom moo moom mu mujj di noonam boo xam ne forewu ko nu mu ne loolu de ñu ngi mel ni li doonit moo fi te jub leen ngir dee doom boo jur yaa ngi ko jur ngir mu dee rek yaa ngi gis sa doom bëgg mu dund waaye daal xam nga ci dee lay mujj moo tax mu mel ni dee nga ko jural waaw fa noonu ak jàqale rek xor na garaw na xor na Muusa ci géej gi indi ko waaye forut lu mooy ab noonam de forut lu mooy jàqaleel dina saraw na naka saraw na waaw maanaam xaamaana jaraafam wajju noo doom maanaam ci des seen kaanu nekkoon nañu xaa fi nga di way may de ay moykat yàlla lañ moo tax yàlla bëggal na leen ci loxol Muusaa de waxaala ko wax imraatu Firawna jabari Firawna qurratu aynin sa def xol la li ñeel ma wala kaa ñeel la la tax loolu def rek asaa ñeen faana amaana bu mu jëriñal nu aw na tax sa gënu jàpp ko wala doon muy doon woom ko ñoom laa ko na xam di ñu dëkk ñu dëkk Muusaa de fekk na Firawna ak ñu la woon li nguuram di rëy yëpp moom na misra ñeenti téeméeri at mës da xopp benn bés ba su set dañ ko wàjjal jële mu lekk ko moom rek te dina jëkk ñeen fukki guddi te du dem cabinet loolu taxoon mu beew ba ne man yàlla laa duma nit waaye loolu yëpp su ñu la woon mën nga jot jigéen benn doom la ko yàlla may muy doom bu jigéen mu juddu xame barat jox koy faj faj mu të bu xawee mocc mocc mu të mu laaj xam ka yi jaar dina si ñëpp ñu ne ko ndundal mi ñuy fare ci ñi ñu Misra ci bés sàngam moom rek ay ay kafikam rek moo mën a wéeral sa doom bi ba nga xamee ne leen yàlla ba nga xamee ne ne Firawna gént na safara jóge ci kër Bani Israayil ñëw lakk neen nguuram nga xam ka di ne ko doom bi góor bi juddoo ci Bani Israayil mooy demee sa nguur moo moo taxoon nag mu sàkk ay saam yoo xam ne ko jigéen juróom ba rek ñu ngi lay passé yu di waxtu wu nekk saa yoo wasiwee ci seen loxo rek bu dee doom ci jigéen ñu bàyyi ko ak yow su dee doom ci góor nañu roy de dantay Musa am bi nag saa saam yi di ko topp di ko topp di ko topp di ko topp bu mu ne ci weeram suba ba mu wasiwee naka yooyu suñu doom yi rek dégg saa saam yi yëkkati ci nga duma de jëm si ci moom mu ci defa Musa sànni ko ci suur ba suur bay takk safara yàlla daal di wowal ay ay weenam ak sëyam saa saa yu ñëw ne ko yow mboon nga tawaar nga jotoo fi ana sa doom mu ne man de gisuma jenn doom ñu visité ko gisuñ dara ñu visité léegi ba ne lii mu am law si mu ngi matu waaw mu ngi tëdd ba xam ne aussi rek a def tey waaw gisuñ doom gisuñ dara te gisuñ si moom démul am na kër leen kër gàngoo ñu kër kër ga ba mu daj xanaa safara way tàkk moom gën di defee xale mu dugg Moussa yi ndam ne jox safara way yëpp jooyu dañu visité ba génn ba dem ba sori Moussa soog a jooy ñu ngi safara sax yaa ngi soog a si ñëw génn di ko fekk safara waaw laalu ko def boobu la ko yàlla ne nampalal sa doom bi kenn mënu ko dara man yàlla maa koy wattu su fekkee dalul nag ah booy ba sànni ko jëgee jëre xelam dalul ñu sànni ko jëgee jë guddi gën ko sànni ci suba sa moo moo dajee dat bi xam ka di joxoon garaaw na nekkoon dunda lu ñu for ci di dëkkat keroog mooy wéral doomam moo koy sam ko jàngu naa nga jeex wax buntu ngeen misra daal di xoo mool yëpp da leen ketaleen na ci géej gi ñoom ñëpp ñu dugg ci géej gi seet gis nga xam ne wu taxul ci garab mooy tudd Moussa mu mooy ndox yi seen lakk saa mooy garab doom bi ñu far ci diggante ndox ak garab ñu fab ko indil Firawna mi ngi muusu baaraam yi soow mi ngi jigéen mu ne ah kii mbaaru gane gi ma waxoon amaa ne ko rayal gane gi ñu waxoon ngoogu rek amut lii amut laa asiyatu jabaram yàlla def mbëggee Moussa ci xolam mu ne bu leen ko rey de kii doom ji yàlla ko bëgg a seddale sama xol man mi nga xam ne maa ngi see yow dara ma doom suñ xol bu sedd la rek te yàlla mën nañu cee jëriñ moom mi waxoon ne yàlla mën nañu cee jëriñ yàlla jëriñ na ko ca te wax ne sa xol bu sedd yow de man de du sama xol bu sedd ah ma ne ko boo wëccee wëcc rek kat noonu kii de mooy xale bi ñu la waxoon waaye booba aseetu moo ëpp doole ñëpp ci firaw na lu mu wax rek loolu lay wéyal aseetu ne bu ko kenn rey rek kii sama doom la. te am na daal di ko far nag nee nañ seet jëkk li nga xam ne moom la xam ka di waxoon ñu dindi ay tax itam du doom ja doom ja daal di wér te am na daal di ko bëgg nag waa ak baata xëy waaru mu Musa xolat lay Musa faari xandi ak gis ci xel yaayu Musa nag mu nga xëy mu nga tiit a tiit a tiit a tiit ba dara ci xel di seetu ko suñ kaadat nag ak jege na mu la tub bii di feeñal bii jëne doomam la de kiit na beneen damay dem benn yoon rek déclaré na maa ko jub lu lu mën a jub muy loola loola mbabat naa dugante ko nag ak takka suñu yàlla ala xal bi aji xolam de yàlla takka xol ba nag ba mu bañ a wax loolu di takko nag gis na mu nekk mi moom way gëm ne wa qaala tam wax li fii ñeen jigéenam Muusa kultoom wala Mariam us fii toppatul solo solo si Muusa mu ne jigéenam ba demal toppatul solo si Muusa waxam fu mu mujj ba bakro tam gis bii ci moom an bi ñu ci sori woon te ñoom laa yaakaar na xamuñ ne ak jigéenam la de ñoom ñoo ñoo ne fekk na Firawna booba waxte na nag ne ku jigéen du mën a nampal nekk rek nañ mën a indi jigéen ñi waaye ñii de ku ma ko nampal weeru ne naa la fay saa siwdu ñii ñii nit rek yëpp ñu ngi buxante di xëccoo xale bi ah jigéenam ba nag gis loolu moom seen Moussa ngi ci seen jiit nag jaboot bi ñu ko jox rek weenam bu ko joxee weenam mu bañ woowu ka ñoom laa yaakaar naa xamuñu léegi waxaram naa tamit tere alayhi Musa ak Mara yaa nampal ka min xaw ñu njëkk yàlla ay ko yoon yëpp yoon wu dikk rek jigéen ji ñëw yoonam rek yàlla ne ko bu ko nam fa qaala tam wax moom jigéenam ba ne ala adullukum ndax tey kat ma leen ala ali bay ci ñoom neeg yàq la noo ñoom danañ yar ko lekk ñaan leen ndax bëgg leen ma tekkal leen néeg boo xam ne daañ mën a yar seen gone gi woowu te ñoom naa seenu way laa la ñu biir la ji moom te daañu ko laajee bi amaana ne ñii ñoo ko jub ngeen di ko laajee bi ba léegi xamu leen fu mu bàyyee ko ngeen ngeen ko laajee bi ñu ne laajee bi buur bi lañ wax daañu laajee bi salaam ngeen amparal ko doomam yi la lañ wax ah ñu ne baax na mu dal dem ci am nag ne ko sa doom ja feeñ na te daaw naa ngay dërëm fay ci képp ku ko nampal bañ na jigéen ñëpp kaay kaay dem yaay ji dal di ñëw dal di ko jox weenam mu dal di mu dal di nam Firawna ne ko sama doom bi bañ na ween yëpp yow mu nangu sa ween lu tax aman ne mooy yaayam rek amul wax mu ne déedéet man damay jigéen gi neex xet gi neex am soow gone mas da tam sama ween gi mooy nam ko na ko rek aseeti na loolu dëgg faral def naa tam delloo Muusa ila ummihi mu def dëgg am de noonu la ko yàlla delloo yaayam nam ku kenn lu may yaayam day faqara jënd sa daañu waaw ba tam ndax yaayam xolam sell de moo nampalal boppam doomam wala taafan te mu jàpp way taalama andi na mu xam am na waat laay nekk dëgg la bi àlla ci delloo ko doom yi. wala ci loolu dina ko doom gën ñu koy ñu laa yàlla mën a xamuñ de ah yoo xam ne si noonu dina nampal doomam ñu ngi ko fay bët bu tëdd ñaar ñu ne weeru nekk saa suur lu mën a am daal. doon na jël fay nga xam ne alal na ci moom ndax alal yi xaraale la noonu déefar boo xam ne noonu xaraale la loo xam ci alalam rek leew na muy yar yonent yàlla Muusaa nag Firawna nag yàlla nokk ci cofe rek Muusaa ba nga xam ne mën na mën na mu mukk te gisul Muusaa bu kay rek ñu dem leen wax wax kii nambar sama doom bi dafa indi mu indi ko su ko Firawna yi fooye mu indi ci picc bi dafa Firawna ku gudd picc la woon kon ñun moo ko jëkk a defar lu ndax mu mën a dogal sikkim bi muy dox ndax mu bañ a dëgg sikkim bi bu Muusaa ñëwee rek jàpp ci sikkim ak Firawna ni fépp mu rëcc na rëcc na bu rëy a rëy rek daal ne kii wala jëlee Muusaa du fee du fay lu may tas ko fekk ci sikkim bi mu ne la mu ne kii daal mooy gone gi ñu doon wax dama koy rey rek dana yoon noppalu Asiyatu ne ko déedéet kii xale la rek xamul dara mu ne kii magam jëmm la ma dendaleel ko ab libidoor ak xalu safara ba xam nu mu ciy jële teg libidoor ak xalu safara Muusaa di bëgg a fab libidoor ba jibril seen loxo la mu far far mu far xalu safara wale def ko ci gémmiñam lan mu wala kënag waaw moo taxoon mu dotoon ba mu dotoon ba muy xaleel moo tax ba ko yàlla yónnee mu ne ko dindi ma sama dotoon ginnaaw man wax ak nit ñi ba yàlla dindi ko nag ginnaaw mu gën a fasaa ñëpp loolu garaana garaana garaana saral nag yonent yàlla Muusaa dal di ko yoral boppam ci këram ñu di ko wax doomi Firawna muy wax doo yëre Firawna di war war waaye Firawna bu ko gis rek mel na ni gis nga Firawna mu def ko wali haa dee ne gannaawam Muusaa ay Firawna amagut Firawna wala wala ma baraxa ba mu jotee asu dërëw dërëm nga ba mu amee ñett fukki at nag wastawaatan jot dayam wastawaatam dër affaire yi nag jox ko hukman xam-xam bu jëriñ waaye mën a dégg diine ba nga xamee am na ñeent fukki at nag yàlla daal di wàcc ci moom woyu moom Muusaa daal di ko jox xam-xamam diine nag mu yonente bani Israayil nag boo ko saa yëg kenn ñu fayee Muusaa moomu nañ ci danañ fayee am na ñu woyu danañ ñu de gannaaw bu ma amee ñeent fukki at nag naka baaxal yàlla ci mboolem yonente yëpp lu mooy ñu néew ci ñoom ku nekk ci bopp ñeent fukki at lañ la lañ wàcce ci moom woyu lu mooy Isa moom fa mu juddoo la wax inni Abdullah atani al-kitab ak Yahya ñetti atam lañ wàcce ci moom woyu ak Yusufa ci fukki at ak ñettam lañ wàcce ci moom woyu ñu ci def ñëpp ci fukki at ak juróom-ñaar lañ wàcc ci Yusufa woyu mboolem yonent yi ci def ñëpp ci def ñeent fukki at lañ la woyu ba Muusaa wa daxala xaraf na Muusa al-madinata njënd la kii mun foofu alaahi ni xawlatin ci waxtu sàggan min ali ak ñoñam de am na bés nag Muusa génne di doxantu ci waxtu woo xam ne ni ñaa ngi nelaw nelaw njolloor ba ma jël tam tàkk te ay ca dëkk ba rek léegi ñaari gaare yàq ko filaan yi dinañu xuloo attaqué leen ñu seen di ak nekk la ñu jiitam kenn ka Samiri la tudd te ci bani Israël la bokk waaw attaqué leen ñu àdduna yi ñu nekk la ci noonu am de te mooy sa kii kenn ka nag moom waaw te kii la waaw moom itam bokk ci gañoon Firawna ngi de moom faatoon la tudd parce que xaaral ma faqat li ko la si kaaka min science yaa ji nekk la ci jiitam ala la ci kaaka min addu yaa ji nekk la ci noonam de naka ko def mu fekk yonent yàlla Muusaa fekk benn xittiw mi ngi tàggat benn Israayil yi di ko yenn loo matt pour mu yóbbu ko ca toggukaay bi ñuy toggale Firawna ñamam waaja di bañ a xenu mu ne ko fokk nga xenu ko daldi fab xarwaasam di ko dóor ne ko fokk mu xenu matt ma kooku ñëw ne Muusaa wallu ma yow ci ñun nga bokk ndax nga yaay jëla nampal saw ci bani Israayil la bokk tax na nga yow mel nga ni suñ bokk nga xëy wallu ma Muusaa daldi ne xëtt yi mu bàyyi ko bu ko xenu loo matt mi xëtt yi bari Muusaa benn mu xenu ko wala yow nga xenu ko Muusaa ne man ma xenu ko daldi mer de oo kese wata pour tañ ko Muusaa Muusaa wax ba tam rayaa lay ci moom Moussa pour teñ ko rek mu daanu sedd koy Moussa daal di gaawantu nag wàq ca ganuus ga suur ko ca xaalam wa Afa bi yar ci ñu ne ma di saytaane ñu ne ko di saytaane lii day saytaane ma ko teg mu yëngal sama mer inna wa naka moom saytaane addu noonu la mu ci doomu aadama mu mu binun bu dee aji réeral ko mu binun bu dee aji ji réeral xaaral wax na ma ngay rëccu na rabbi ya borom sama ñu naka man dolam tu tooñ naa nafsi bopp sama ci rey gi ma rey ci bi fakkur yàlla nga baal ñu ñaan ma fakkafara sa baal yàlla lawa ñaan ko rek inna wa naka moom moom waal ko foor mu aji bay ree mu aji yëral mu daal di tuub ci yàlla nag yàlla nangul ko xaalam wax rabbi ya borom sama bi ma anam ta ci xéewal gi xéewal sa bi man xéewal bi bi ma bi ma anam ta ci xéewal sa alay ci man xéewal bi ma xéewal ba may ma mbaam yàlla yàlla ma wattu gannaaw bi wala ma ko na ba nekk ci ma sa yaram yaa ngi dimbale ma ci demee ci yëfare de ñu ma baale bakkat bi yàlla ma wattu gannaaw tey bu ma defati jëf yi waaw yoo xam ne jëf yi jëf yi mooy la de paas ba tam xëy fil madina bi tey jëndi la xaaral fan bi mu waa Ndiakhate te trop xam nga mu ñëw ko la koy jot de Moussa xëy na mu nga ci lool xamul mu bakkan bi mu rey dana feeñ ba lool. fa xamal sa baal yàlla lool ñaar ko rek dina woon ak moom moom waal ko mu aji bay ree mu aji yëral mu daal di tuuti yàlla nag yàlla nangul ko. xaaral mu wax rabbi ya borom sama bi ma anam sa ci teewal bi teewal sa bi man teewal bi bi ma anam sa ci teewal sa alay ci man teewal bi ma teewal ba may ma mbaam yàlla. yàlla ma wattu gannaaw bi wala ma kona ba nekk ci ma sayran yaa dimbale mu jëgëna ci yëfare de ñun ma baale bakkat bi yàlla ma wattu gannaaw tey bu ma defati jëf yi waaw yoo xam ne jëf yi jëf yi may la de faaf ba tam xëy ci madina bi tey jëndi la xaay fan bi mu waa jaral de te toro xam gëna mu ñëni ku la koy jot de Muusaa xëy na mu nga ci lool xamul mu bakkan bi may dana feeñ la lor lor fekk ko jëmbee fay sa am la fekk alla fi waa nga xam ne istantaraawa dimbali ko na mu ko bilaam si jëlee bëjë yastase ko muy xas mu fati ko jëlee sa Muusaa génn doxantu xam ne mi ngi xalaat na muy mujj ci jëfi démb ji waa ji dellu ko ne ko ñëw wala ci magar waaw xaaral daw ñaan ko Muusaa Muusaa naka naka yow la xaw yu naa ji daw nga mu gën ji ji daw Muusaa ne ko yow na dangaa daw yëpp yaa fi doon déjoo te yaa ngi ñëw si di déjoo wala maa araada ba mu na mee an yëpp ci sa guddi ci dina fi jëkkaaga waaw moom ak wu noonu la la maa ñeeleel waaye terewul rek Moussa ñu ñëw di ko wàggatu bëgg ci waa ji nga xam ne mooy xuloo Israayil yi xaala wax Israayil yi ba ne ko yaa Moussa yaa Moussa aturidu da nga nam ma am tax tool yi mu nga rayal ma kama xatal ko nag nga rayoon nag kon bakkan bi am si ca démb ja moom Israayil yi moom far ko weer ne ko nag maa bëgg ray nga rayoon waa ji démb ñun ñëpp daal di xoolante ne ndekete yoo ñu rayoon te xamuñ ko ko ray ndekete Moussa ko ray suñ turu yéen ngay nam illaa an takkoona rek bu nga nekk jabbaran nga aju mbaru fi la rek ci suuf si misra wa maa turidu namu la an takkoona bu nga nekk ñoom muslimina ci way xëy na ñe de te ci ba daal di ko dégg rek daal jëm dem ca Firawna ne ko te ci ñu rayoon jëm ta xam nga ko rey Muusaa ko rey rek naa ko def Firawna daal di xeble ay nit ñeneen dem rek fu ñu mën a fekk Muusaa nañ ko rey ku nekk waaye waa xaw fa fàkk fa sa yoon di wuti Muusaa wa jaa'at bika rajulun waaye di gëm yàlla min ahsal madinati te gën jasoray dëkk ba ñu ne mooy waa ji xettaloo yaayam waa waxande la moom dal nay gëm ndax kaa def gëm gisoon waaw ci Moussa moom moo rocceeku daal di daw rek waaw jig si ca Moussa yasam bi moom dana mu daw xaala mu wax yaa Moussa yow Moussa innal malaa naka mbooloo ma firaw naa itam ña yaa tamit doon dinañu diisoo bi ka ci yow di yàq doo ko ngir nañu rey de waxuñ génnal tukki jëndi li indi naka man mi ne naa fi xina aji nag la ma ca way laa ñe di lakka ñeen la de kooku ne ko ñu ngi lay fexel lay lay rey daal di jël dëkk bi rek bu la kenn bu la buñ la gisee buñ la gisee rek rey firaw na joxe na ndigal ku jëkkaa si ci yow rek te nga waare fa xaraja sa génn Moussa mi naa ca mbul ko xaay son ñu aji ragal te tara xaw mi moom dina mu ñandiku la koy jot de mu génn nag ma nga ma nga jàpp nag mu daal di xaw kas li ko yàlla nag xaaral ma rabbi ya borom sama nag ji nii yàlla nga musal ma ñaa xaw ci ñu sa li ñu way ko mu ñaan yàlla yàlla ko yàlla musal ci noon yi rek ku ragal ab noon wala buur buy tooñ wala kuy tëkku ne rag rabbi tu billahi rabban wa bil islami diinan wa bil qur'ani hukman wa bi muhammadin nabiyyan gërëm naa yàlla sama borom alquran mooy sama atte Muhammad ay sama yonent lislaam ay sama diine ku la tëkku nga wax loolu rek dara la du mën a Musaa daal di ñaan yàlla musal ko ci noon yi daal di génn dëkk ba nag
mas ta génn ci Firawna sàkkaa di génn dëkk ba xamul yoon mu jëm ci benn dëkk yàlla daal di yàlla Jibril mu daal di ñëw soppeeku am man nga jolore jiitu ci kanamam de wala maa tawaj jaar ba mu jimloo moom Moussa fil xaarama yana ci wàllu Madyana mu daal di dox nag waaw mu nga jëm Madyana de tey ak man tam dem na toog ndax am ci ko mu ne li nga bëgg na ci yow mu ne ko léegi boo bëggee ma may la kenn ci sama doomu jigéen ñi seen kanam mooy nga xamal ma juróom-ñetti at mbaa fukk sama awri bi nam maan ak ko moo ci sotaale ko ci yow bëgguma laa teg lu tiis moo tax xam door a teg ko lu tiis waaw ñu ngandi ko ah ñu faa nangu ak sa sëy laa ngoo ko loolu takk sëy ma may la sama doomu jigéen nga xamal ma juróom-ñetti at mu ne nangu naa danañ am jabar ñu ne nag xamal na ko ñoom ñetti at wala xamal na ko fukki at alxuraan bi dellu ci lenn waaye yonent na Muusaa bi bëgg na mat moom la matal de mooy fukki at yeneen la ca teg la ko tegtal nag mooy ba muy ñëw Madiana juróom fanweeri at daal te te dafa mu jógee Madiana ñu jëlee fa yàlla yooyu ci bopp ñeen fukki at nga xam ne kon tam def na ca Madiana fukki at de wala maa xam xaaral wax Moussa ne sa pej bi nga xam ngaa fekk ma incha allah ndem borom naa yàlla kii mooy wax ba tey bu ma wut man ma sa pej moo ci sama daal di yow de bëgg na saa tuuti sa pej bi nga xam ngaa fekk ma incha allah ndem borom naa yàlla mais saa yéene ca yow mosal ñëpp a bëri de xaaral wax Moussa daal di gëloo li nga ma wax bay naa ji nekk la diggante sama bay nekk la diggante la ay ma la jëlee ka ka ñaari digg yi at mu xamee su matal naa ko wala aroona jërëjëf noo ne xale ci war ma xale ci man wallaahu yàlla wakiilun aji wattu lañu ala maanaam xooli dëgg ma ñu wax ko de Moussa ne ko juróom-ñetti at yeeg fukki yëpp day am ci man waaw lu ma ci mën a matal rek du tax man ma du tax mu ma man ma noonu la de mu daal di fan mu daal di Moussa mu daal di ko jébbal jabaram mu daal di ne jabari Moussa demal ci magasin bi def xeetu yonent yi tànnal ma jaw yàlla indi ma jox ko Moussa mu di ko sàmm ji ah ndaw sa dem xafeet wi Adama wàccale woon ba mu jógee àjjana naka la ko indi sooy bu ne ah dee dee dee waxuma woowu te loolu indi beneen xeet Moussa daal di koy jaay doon ne man nag yi laay jël natt ko mu tolloog moom taxawaayam képp Moussa ñett fukki xasab la xeet wala ñett fukki xasab Moussa ne bii laay jël sooy bu ne dee boobu dina ko joxe Moussa ne bii nag man kenn dootu ko jël ci man ñu ko coow ba ñoom ñaari Jibril wàcc mais xam ko leen xeet wi taxeen ko ba ba mu raw leen xam ko boo ci guddi rek yaa ko moom ñu gas ba mu raw ñu suul waaye bu guddi guddi mënu ko guddi Moussa daal di daal di ko guddi moom ak wax jamonoom wala maa abaa ba mu matalee Moussa Moussa la jële dig ba wasaara tam dox bi ali ànd ak jabaram ja ana sabu suur min jaane bi tóor ca wàllu delluwaat naaram safara de ba nga xamee nag ne ci caade mat na Moussa taggu sooy bu ne ko damay ñibbi te damay yóbbaale sama jabar te mu ne ko demal ak sa jabar Moussa ne jabar jabaram ñaanal sa bàyyi ci kàtt yi doon sàmm mu dem ñaan ko jot mu ne ko fu kàtt yi jibee meloo boobu tamit liñ daa jibee rek waaw yaa moom kenn wàll bi mu ñëw wax ko yoon ci yàlla Moussa mu xooñat wa ci ndox na ndaw su kàttee parce que ñu jibee loolu ñoom ñëpp ñu jibee ñu weex tal te moom moom parce que ñoo jibee noonu naa ko def nag ñu daldi ko xaajal jëtam jox ko moom boole jabaram waaw ak ci sàmmam ma ngay ñu di misra nag dañ demee ba ci digg yoon ñu de yoon wa dañ fasee lan dama guddi fasee kerte boo xam ne kenn mënu koo tekku Moussa ak yéen nag safara way tàkk xaala mu wax li ali ñeen jabaram um ko sax leen fi lay ñeen ak man aana si yéen ma naaram safara daa dee ndax Suleman ak ci ma di leen ne ak moom nga xabar ci solo seer wa aw jitoo si digg jullit nee naar ji safara daa la sumboo yéen sa solo na ngeen jaaru de vraiment ataa ba mu dikkalee ko noonu yaa woyof ko ñun saa biir waa di ca wàllu xurwa lay ma ne waru uñ barkeel ñeen Moussa il bu xamante ca pàkk ba al mubaraka di bari uñ barkeel ndax la dégg wax yàlla jëm na sa jëre di sukk ca garab ga ñu ne ko an naka bi def bi yaa Moussa yow Moussa in yeen aka man ana man laa wu maa yàlla rabbul alamin ca aji mën bi léegi rek safaram si si seen muy tàkk mu defee na safara la ba mu ko ñëwalee loolu la ko wax de lam yàlla wax loo garab yàlla wax ak moom ca lam ñu garab ga ne ko yow Moussa man maa yàlla de duma garab de waa nag naka mbiram ngir alxisa ngir asaaka ya taw Moussa ni ko fa la ma raa ba mu gisee ko tata su muy yëngatu kaa ma xaaral naka moom jaamu jaani ngoroon la mu ci gaaw wala mu tëdd pour que ñu mën a ji tëdd leen yàlla su gën a kuréel kuréel barkeel ndax fa la Muusa jege wax yàlla ja yàlla ne ko man la yàlla de ci nga xam ne maa moom du génn Muusa daal di jaax sàkk ci yàlla da nga xam ne amul fu nekk yàllaa koy yar nag di ko delloo di ci baqaaw ne ko sànni sa yar yi gannaaw bu ko neexoon te bi amee ni ko yaa Muusa ñu ngi def lu mu doon li ci sa loxol li sa loxol day yor yi la yow Muusa waaw Muusa ba si siré ne yaa saay mu ne ko sànni ko mu daal di ko sànni de mu soppee ko jaande mu dëdd mu ne ko tëddaw wala mu ñëwaat te dellu mu gannaaw de ba mu tawee nag yàlla ne yaa Muusa yow Muusa dëgg bi si waa taxaw sama ragal ñu nekk na teew ñu daal ñu naan ñu nekk ñu woy wala ñu il faut xar dañuy attaque loxo sa ci jël bi ko ci jubal sa taxul ñu génn ba ba am li muy borom ci ñaar min xaari soo jëlu ci dara se mu jàpp ya do mu jàpp jaan ja mu dellu sa prépare ya ñu ne ko dugal sa loxo ci sa jubal génne mu dugal génne mu mel ni jant mu fenk wala ñu tàppali ngay dëgëm ci yow janaa sa mbëgg sa ñaar bi nga ragal yi ñu ñu gis na ngay gëstëri di lox yàlla naa ko tàppal sa loxo ci sa mbëgg loolu dana dindi ragal te daal di déglu lay aar walaanaani yaare aw teef lañu yii la yónni li rabbi def ci borom borom sa yoo xam ne jëm ci Firawna rek yàlla def la yónni nga jëm ci Firawna say kaw teef nag mooy addeer loxo li de. ba ma lay yéen mbooloo ma inam naka ñoom kaaru nekkoon nañu xamoon ni lii fàq te nañu doy génn topp yàlla xaala wax Musa rabbi yow borom sama ini naka man xatal ko rey naa min ñëw na fan bakkan de faa xaafu dana ma ragal an yàq doon yëpp ñu rayat ma de waa xii mbokk sama Haaruna Haaruna woo moom ak solo moo gën a wér mi ni ci man di saanam ci lamiñ de faar si nu yónni ko maye ànd ak man ridan muy aji dimbale ma i sa jot nii dana mu dëggal ma de ini naka man a xaafu dana ragal an ko digoon ñu redeet ma den waa ay mbokk ñaari fay lañu mbokk yi nga xam ne seetaane mën na leen bañ noonu nakam waaw doom yi doom yi Yaqooba noonu nañ seen mbokk yi ko rey ak mbokk moo xam ne ne moom dafa li wuum am xëy na ko mbokkam naka Firaaw na mi nga xam ne ak yonent li gën a rëy ci teewal yi bañ ko ko joxee dafa ñaanal mbokkam ne nañ ko ci boole de alam wax yàlla ne dama suddu al na maa dëgëral Abubakar ba def ba axi ko ci mbokk sa de wala yaru dana ma def la ku maa ñëwee sultaan ak noteel wala yëf yoon naa gati ñuy lay ku maa jëm ci yéen ci lu bon de dem leen di ayatina ànd ak àgg si nii juróom-ñeent antuma yéen uma ni tabaakuma ak ko topp na mu leen alxaaliba na yéen a di way note wala maa jaa um ba dikkale leen Muusa Muusa bi ayatina ci àgg si nii juróom-ñeent ba yi naa di mbit ñu di way bis xaaloo ñu wax maa asaajeeg Muusa nii de ilaa xirun dara maa asaajeeg lii la Muusa dikkee ilaa xirun dara njabar la mustaran gudi guñ juude commence amee naa nun de mosuma dégg gi asaajeeg léegi abaay naa ci bàyyi sunu la wane nañu di way jëkk waqaala ta wax salaam ne waqaala ta wax Muusa Muusa rabbi borom sama alamu aji xam la mu bi man jaa dëkk dikke na mu bilu daa jëm jib mi leen di dëkk si moom waman takkuma ak dana nekk la wa ñëw ko xaqibatu daari mu dëkk ga di buñ sampale illa wa naka moom daay di wutee si saari moo way reet ñe de waqaala ta wax salaam salaam yaa yoon ma la wa yéen mbooloo mi maa alimtu man de xamuma lakum ña leen min ilaahin yàlla xayri julul man de Muusa di woo yàlla man de xawma yàlla bi mooy man waaw xëy na waaye lakkal ñu ñeel ma yaa amaana yaa amaana ala ci ci ban waaw ma nga ma lakkal ci ban bi ay ay kër ak ci moom ak ci jëriñ bañal defal ñu ñeel ma salam taam kaw daal di ndax Suleymaan ak ko neex may yoon bu ilaay ilaay Muusaa jëm ci yàlla Muusaa ji rek tabaxal ma burju gulu lox burju boo xam ne dana mat ñetti kilomètre ci kaw ma ngi ci ndax mën a gis yàlla Muusaa ji rek waaye ñu ne kam man laa bi ma dina ma jot ko sax meel kaa si dina ca way nar ña ci woote bi mu woote yàlla gisul man de wastakbara tam réylu woo moom wa junoo doo léew léegi dara gisul si nit ra ba xay laq ci lu dëgg wasannoo kañ jottu anoom naka ñoom laar joon ndee si ñuy naa jëm ci ñoom yàlla de waaras naa tam jàpp ko junoo doo léew ya fana bas naa um tam tànn leen ci benn ca jàngale danaa sa saram daw bañ a gëm yonent yàlla mu saa de xanaa du ko fexeer man yàlla ma jàpp ko ku xool ko jabaaru xam doom de moom mboolem xareem kon pour seetal seetal kaal na tey nag ah si bëgg saa dugg na mu jabay weddi ña seetal yooyu yële dugub benn këriñ bi ñu ci seen muñ mooy boobu rek rek ñett rek ah moom ak jaam mooy am ba ba àdduna ñam ci woote jëm ci yàlla nit jub ànd ak moom ak ña koy weddi di ko fexeel rek yàlla dana ko dimbale moom ñi jub ànd ak moom ña koy fexeel yàlla dafa leen di xalaat de wa ja'alnaahum tan def leen a'immatan ñu di njiit yàlla woon danañu woote neeri jëm ci safara wa yawmal qiyaamati jëm jëm yàlla laa yu doon defu tere leen mbugal de waa baax naa am tam tafal leen saa si dunia bi ci àdduna laana dem sax de ooyo ma taamal ci sa ñoom yàlla wuñ ñoom beneen mag mooy naa ci nekk leen ñu sori ñoom ñu sori ñu yërmaane yàlla def wala xalaatee naa jox mu Musa Musa al kitaaba tawreet min baadi ma alak naa gannaaw bu alagee alqurona maa seenu laay réew njëkk gannaaw bu yàlla alagee ni sumbu nañu soxna def samuuda ak sa am na sax yàlla jox mu Musa tawreet de ba saayira nit mu tegtal li naa fi ñeen ñu def wala tant duñ jub wala amatan te yërmande laalawum ba ñoom yéen a fekkoon nañ waa du ma gëm de wa maa kunta nekk na woon yow Muhammad di jaaniful xar bi ca wàllu soowu wa de is xamee naa ko nuyu yow Ibrahima Moussa jëm ci Moussa la ma dem gis naa gis nañu waaw tabbi ci yonent yàlla Moussa mooy si ko yàlla feeñ ma wàcc ci woyu joxewu waaw joxewu ñu ko la woon de mu ne ko booba nekkul ko woon de man yàlla maa la ko solo de gis nga yow seen xibla mooy kaw kaw la ñuy jublu rek kaw suñ mën a dëkk jaadu na ndax waaw Moussa ca wàllu kaw la ne woon dañuy wàcc ci ñoom wayu màggal loolu rek kat moo tax ñu def kaw muy seen xibla nasaara ab seen ko rek mooy seen xibla ak suñ mën a dëkk ndax makkaanam sorti yëpp ñoo yoon def defee Mariama ca seen ko la Mariama demoon ba jublu Yesaa jublu ñoom nangu rek ndigalal yàlla dañ leen jublu loolu bay demoon adis ñu topp na yàlla digle bañ jublu loo leen màkka ñu jublu màkka bañ leen nangoo digal ak yàlla li te réewul yàlla jox na leen li ñaari kër jëkk ya doon wute màkka mooy juddu suñu yonent mooy suñu xibla mooy suñu juddu yonent far rek bu xamee naa ban wooyoo yaa Muusa jëm ci Muusa lam rek mu di wamaa gunta nekk doo ñëw saa yi rek fekk ko rek teewul ko woon ne man yàlla maa ko solo rek walakin naa la fi nekk anta naa sa suñu xoroona ni maas parce que taala te yàgg naa leen si ñoom alors mu dund ñu fàtte ko leen yàlla dañuy jàppante woon ak moom si yow maa la suba rabbi gum ne ba maa kum dana kuréel saa yéen daañu sax si Ali Madiana si ñoom Madiana te loolu jàng naa leen si ñoom ah naa gàdde sóore te tey Madiana su ko Muhammad ñu gisoo si Makka réewam sàmm mos ñoo jàng mos ñoo gind waaw bu ñu nekk ne te tey Madiana man yàlla maa ko wéy ci moom ne wala ginnaaw lu ko nekk naa nekk lu mu rëdd yéen di wéyal la. وما كنا نقول وان بجاني دور جوال بجوا اسنا دينا بنو وهي موسى ري با يلا وهي موسى جي دور دي دور نون بو كا جوال كون ولكن من كرامة يرمان من ربك تدور برمك تدور رنج نغوات أمون أولي ما أتاهم يكون لهم من فين أجوار من قبل كتن جكتن لا لهم بونيهم يتفكرون يوادو بكتن ولولا أن تسيبهم بل هلون تبقى قبلهم ولولا أن تسيبهم لتره بقى تلهم مصيبة مصيبة لما قدمت كتاب سيد النفائي ما لخوزين فيقول بني ربنا يا برمسكم لولا أرسلت لتعينوني إذن أنتم لا أرسلون كنيوني فنتبع بندنون قبع آيات بيك عليك ñun musiba daloon da xam ne yàlla yónni benn yonent dañuy wax ne yàlla war ngaa yónni jiw ak yonent balaa nga noo alal de moo nekk mu nga nekk mu mu ñu jëwee gëm ñu de bala ma jaawum ba dikk yi ala ko dëgg de ñu Muhammad ñu ne ni naa dikk ñu xaaral ñu wax law laa wutee lu joxe ko bis la maa wutee kenn la joxe fan Musa Musa ji kaase ba yonent yàlla moom man ñëwee amul lu ñu wax lu mooy lu tere Muhammad yi ñu kaase yi ñu kaase yi ñu saaye et waa la xalaat awalam yakfuru ndax weddi wu ñëwoon dinaa woo dee jërëjëf fan Moussa Moussa mi nga xam ne day njëkk ba jaa Moussa mi joxoon kaa dee yooyu ndax weddi wuñ ko woon maanaam xaaloo wax nañu ci ñaar ñëpp Muhammad ak Moussa saa xeeraan ñaari jabar lañ ñu ne Moussa ab jabar la Muhammad ab jabar la Tawreet ak jabar la Alxuraan ak jabar la de te Saara dimbalante nañ dimbalante waxaalo wax nañu ne innaa naka kaafiroon way weddi lañu di ku leen ci képp ñu ñaari jabar ñu ñaari ñaari téere yi de ñaari yonent yi ñaari téere yi kon waxal faatoo dikk leen di kitaab yi gisee mu andi laay bu dugg fa yàlla moom moom Adama moo gën a jig ñoom ñaar ak tabi ma topp ko bu fekkee alquran ak mu tawraat bi ñeent ñi leen téere bu bàyyi ko ci yàlla dëgg la jub alquran man nangu naa ko topp. suñ ko tourné am nag ñaan saa def dina jëwee dëggal de di teewuñ dara de bay la ngeen sa ji boo laata ndéwénuñ la faalam xamal anamaay tabi ma naka danañu topp ah waa am baneen bakkan seen ne su fekkee muy ñëw indi leneen nag xamal ne dañoo topp seen baneen rek ba ba weddi wa man adallu yéen kenn ci gën a réer li may tabaa jaka toppal ma waaw ba ne xam ba kanam dana xayri ah ku dem ci lu am jub dina laa mu jukka fa yàlla de dina laa naka yàlla laa yaa di jubal ci alxawa yi saali ne nañu dee weddi de ñu ci ci ci weddi yàlla yàlla du ko jubal mukk allahumma salli ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المختار العظيم radiyallahu ta'ala anhu sabi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala wala wala quwwata illa billah ay wata shaha bayana ala ma bari wa dari ila rasulullah wa bari wala qad wasalna ñun day bidal nañu law ñu yàlla alqawla alquran la yàlla bidal na alquran ji leer na nañ ci koy dégg la la um ba ñoom te to sakkar nañu waadu ba gëm de so ñu leen ak mu leeralal leen aaya alquran yi noonu pour ñu ngeen waadu ba gëm de allah dina ñaaya aatee naa um jox nañ leen alkitaaba téere min qabli ci jëkk alquran ñoom yow mi noonu dañu gëm bi ci alquran de te dañu leen tegtal ci dëggu alquran ñi nga xam ne ñoo jàngoon téere yu jëkk gëm nañu alquran de wàcc na ci mbooloo ci yow Abdullah ibn Salaam ak saabaam ñoom bañ jéggi alquran rek dañoo daal di jébbalu na jaasi tubaab ca Xabasa ba mu déggee alquran rek dafa daal di jébbalu rek ñoom ñu jàngoon téere yu jëkk yi bañ xamee dëggu alquran loolu doon na tegtal ci alquran dëgg la rek dem dem na jàngale ci ñoom alquran xaaloo ñu wax ne amoon naa dëggal nañu ñu ci moom alquran inna wa naka moom ala ko moom de aji dëggu min rabbina tukki wa borom sunu de inna naka nun kunna nekkoon nañu muslimin ñoo wéetal yàlla min qabli ñu jëkk jëkkam ñi nga xam ne jàppoon nañu ci ñuy jëkk yee waaw topp ñu ca dara ñoom bañ ci alquran rek dañoo daal di jëblu de mooy na jaasi ci ñu defoon ci ci ñu jiwee ci diine nasara ca la bokkoon moo tax bañ dégg alquran rek am dëggoom ñu daal di jëblu ak Abdullah ibn Salaam de ak Bayra na Tora ngaay ka ñaare gaay yoo toog na def na jox leen ak jaraw mu ngi rakkan ratay ni ñaari yoon ñooñu yàlla dana leen yoon ñaari yoon jaam yi nga xam ne dinañ jëf jenn jëf am ca ñaari yoon ñooñu dinañ bokk de ku gëmoon téere yu jëkk ya gëm alquran gëm yonent yu jëkk ya gëm yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñaari yoon lañu am de ndax gëm ci gëm ñaari yonent ya ñaari téere yi bi maa kafaroo ci sa si nuñ seen gëm nuñ de waaye saa woona te danañu jañ bilaa sanati jaaji rafet te ñu ete ñaaw jëm de def leen def lu bon ñoom ñu def lu rafet rek waaw jañ lu bon la nga xam ne moom lañ leen def de mooy jéggale waaw ci ku la tooñ jokku ku la dogu jox ku la xañ de wayun su kono dañuy tawaxe bi maa la sa xanaa am seen wërsëgal leen te bu ñu amee seen alal tawaxe ca de yonent sallallahu alayhi wa sallam dana ñett dañu leen jox seen yool ñaari yoon de boo xam ne bokkoon na ci alal ci saab comme yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de danañ ko jox yoolam ñaari yoon ak koo xam ne jaam boo xam ne dañ koo moom mu topp ak boromam waaw ak topp ak sangam de waa kooku yàlla dana ko yool ñaari yoon ak koo xam ne dafa moom ab jëwéer yar ko rafetalu yaram ba noppi ba ko yàlla takk ko def ko jabar de kooku yi danañ ko jox yoolam ñaari yoon de woy laa sax ne waa ñaaña dem dégg nañu la wax ay ñaañe ak i lor ci yéefar yi aara boobu ñu tëdd anu walis ko de ak ñi nga xam ne su dee yéefar yi di ñaañe te lor ñoom ñu dëdd leen bañ ngeen a faale de waxaaloo kañu wax la naa ñeen nu amaal naa ay jëf nu wala ku ñeen leen amaalukum ay jëf seen salaamun ak bëggeen te aleykum aji nekk la ci yéen de laa na tax yi andoo tini ak jaay yi na wéer yéen ñi de ak ñi nga xam ne su leen yéefar yi lor ak naa feqee leen ngaññe waaw ngir bëgg a mab mab lislaam su ko defee ñoom ñu dëdd de leen ñun suñu jëf lañu yàlla fay ak suñu kooku lu ko waxal wàcc na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xëram gëm xëroon ci Abi Taalib gëm yàlla balaa dee Abi Taalib moom Abdoulaye Baye yonent ñoo bokk baay yonent bi nag moom moo tax kon yonent bi nangu yéefar yaa ci moom ak jenn lor lu nekk def na ko ci dimbali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koy sa xeex nañ ko wàll ku nekk pour mu jëbbale yonent mu bañ ne du ma ko jëbbalee mukk lu mooy ñu nar man ma waaw ma fàtte samay jabar ak samay doom de ba nga xamee nag ne rek kon muy xam na fi dee am jar yonent ñëw dugg si moom de ne ko yow baay waxal benn baat rek laa ilaaha illallaah muhammad rasuulullaah danaa la layal fa yàlla ba nga mucc de Abi Jahl daal di ñëw ak wali Mughirata naa ko dëttal de te ñu Abdul Mutalib de yàgg Abdul Mutalib ci gën su fekkee ni tey ci Abdul Mutalib dina jëm nekkoon dina ju baax la kon doy na la su fekkee ni baaxut woon nag yow da ngaa wax ne Abdul Mutalib sa maam baaxut de waaw këttan bu def li la Muhammad di sant mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wallahi bëggoon naa ko def sax ngir lu la neex yow man lu la neex rek bëgg naa koo def waaye nag yow laay bañal gàcce yaag say rek su ma toogee ba léegi may jébbalu dañuy wax ne sa baay dafa ragal bu muy deelee waaw su ko defee ñu di la ko ñaawale di la ko gàcceele ba seen ba ca say sët boo gàccelee yonent bi faalewu ko yonent wax wax waxam ne yaay la mu rasulullah waxu ko da yonent dëdd gannaaw yonent dëddee nag Abbas na ne ko wax na ko ah yonent ne dégguma ko ba nga xamee nag ne Abdul Mutalib ah Abu Talib dee na ci woowu meloo yonent nekkal naa la baloon fii aaye wuñ ma ko ba yàlla wax ne maa kaana li nabiyyin kon si naa mënoo ñëpp parce que wàllu musique yi nag kenn ci yonent bi ñu gëm yàlla ñuy baloon koo xam ne dafa dee ci teewal yonent fa ko bay balu gam ko woon balul de ci lañ xam ne ay wajib yu daga na ñaanal mooy nga xam ne dee nañ ci lislaam moo tax koo xam ne say maam yëpp ay jullit lañ koy ñaan say wajib yëpp nga ñaanal su fekkee nag ni waaw sa yaari baay rek ñoo la war nañ jullit lañ sa yaari wajur rek nga sañ a ñaanal rek waaye ku dee ci kéefar kenn sañu koo ñaanal te boobu yonent xeroon ci ab Abi Taalib nag pour mu jébbalu te Abu Taalib jébbaluwut te la yàlla wax ne innaka naka yow Muhammad laa tahdi jubal ci la mën a ababta ku nga soppal jubalam de suñu bi yaa amee jub te jaam bu la neex nga jubal walakin Allah lu fi nekk yàlla yaa di dana mu jubal ma ne sax ku mu soob de yàlla jubal jaam bu ko soob woo moom aadama mu aja xam li mu tëj na ci way jubee te yàlla xam ko yooyu njub de kooka la yàlla jubal yàlla ñu yàlla jubal ab yonent ak borom xam-xam yi doon yonent tegtaleen jub rek lañ mën ci jubal waaye bind njub ci xol nag kooku yàlla ko jagoo yàlla rek mën a jubal ku ko soob yàlla moom ku ko soob mu jubal la xol bi ñu ngi nekk ci diggante ñaari baaraam yàlla daay na nit ku nekk sa xol ñaari baaraam yàlla nga ko jot waxtu wu nekk di ko soppal soppandi ko na ko neex moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam ak li muy mat yëpp daawut dañ di wax naa yaa muqallibal qulubi sabbit qalbi ala diinika yàlla yow mi soppali xol yi yàlla nga saxal sama xol bi te dina réer xol bi ñaari bunt la am ci jubloog bakkan bi boobu dafa mu jépp dara doxu diggante ak bakkan bi moo tax bakkan bi mën koo jax-jaxal saa yu ko neexee ci bunt nag jubloo roxo ak teew yàlla la kooku moom caabi yaa ngi ci loxol yàlla yàlla rek ay xattaaw su fekkee ni yàlla ubbi na waaw buntu booba kon ba daal di jokkoog teew yàlla wa booba kon dafay daal di juble borom jub su fekkee yàlla ubbi buntu boobu féetee moom nag amul kenn ku ko mën a ubbi de lu may moom moo tax yonent bi wax yow borom yow li li ñu wax bëti xol yàlla nga saxal sama xol di sa diine de aboo taalib Abdul Abo Abo Lahab Abo Lahab moom moom yonent moom Abdoulaye bokk ndey ak baay waaye beneen ci kéefar de moo tax Salmaan mas nañ mboosoore yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko sant naa yàlla bi nga xamee ne njub nekkul ci sa loxo xanaa ne ci loxol yàlla bu nekkoon ci sa loxo nga jagle ko Abi Taalib ak Abi Lahab ñoo la gën a jege waaye ci loxol yàlla la nekk moo tax yàlla jagle ma ko damaa nga dëkkoon ca Paris walaay ñun ma fi laa nattul sax aw kan xam nañ ne doo doo ay kan loo wax dëgg la waaye nag ñun fekk na ñi nga xam ne benn gàttal rek tuur nañu lañ mën a bëjante àddina yëpp suñu wutee àddina yëpp lu xattab lu fëkk yëpp nañu naar dinaa jëru tuure su ñëwee ànd ak yow noonu ko àddina yëpp daañu ñëw fukk ñu ci suñu gën ñu xalaat mu de loolu lay laajati mu ne awalam nu mag ndax jàppale lu xool law ñu ne leen xaraman xurum amina ñu borom kóllëre ndax du man maa leen may makka seen dëkk bi di xurum joo xam ne kenn du dokk jëm ca kenn du fa rey kenn ku fa tasee nag ku rey fa bàyyi fa doo ko doo ko gaarlu te doonu dëkk yi ci des amuñu ko yàlla mi nga xam ne moo leen mën a defal xaram noonu te xam ne gëmu leen ko yeneen koy mooy di ko tooy su fekkee ni jëblu ngeen ànd ak moom nekk ci diineem ndax sàmm ko doon leen te suj baa xaram nga def na tànn suj baa def na màng ilay jëb juróom samaraatu ci li feen lañ ñett lépp def de borom joo xam ne yàlla dana màng mboolem meññeen ci àddina yëpp indi ko fa amul benn dëkk boo xam ne soo fa demee meññetam kenn koom meññetam xarfu yëpp booloo fa ci benn jeex lu mooy makka ndax yàlla ne mooy màng meññetam lépp lépp jënd ko makka naka muy màng meññet yi yóbbu yóbbu ko fa loolu lay màng yi meññet yi doomu aadama yi yóbbu ko de mooy ñu yàlla may ñëw dem makka aji xan ngir ñu muy wërsëg ñun la dund naa tuuti fi mu ne voilà ci loolu dafay nekk asalaamaaleykum la yàlla moom xamuñ li ñuy wax ñoom xamuñ ne waaw xamuñ xamuñ sax li ñuy wax mais suñ jëblu ànd ak yonent bi ànd ak yàlla ñu xalaat leen moo tax ñu ànd ak noonu yàlla yi ndax ñu mucc xamuñ li ñuy wax rek muccukaay ba du foofu de ba kam alak naa bari na bu ñu alagee min xaaree ci dëkk Badrat réew mi nañu maye sa taa jëf ñu seen dëkk yàgg nañoo jaw am xéewal rëyloo ko waaw suukaree ko ba yàlla xaral leen de sole masaakin mooy dëkk waaye seena lam ci san bu dëkk ko min baarin de gannaaw seen ilaa xalilan dara ci romb de ay réew ay nit ay dëkk yoo xam ne yàlla joxoon na leen xéewal bañ jaw bañ dawee ca xéewal ga nag yàlla xaral leen de seen dëkk yaa nga mujj di jant yoo xam ne kenn dootu fa dëkk lu mooy ñuy rob bu di dem xéewal nga jongoma la joo xam ne ay nawleem ñëw na de képp koo xam ne da ngay rëy loo xéewal da nga koy dewee kooku du nawleem xéewal de ñu ñu ñu ñu tànnalee jongoma ji tedd ab nawle bu ko war a denc xéewal yi noonu la ko yàlla tànnalee ab nawle bu ko war a denc de képp koo xam ne tey da ngay sant xéewal ak yàlla te dolee torox lu jëm ci yàlla day joxe xaqi xéewal ga boobu moo mooy nawleeb xéewal de koo xam ne daf koy réyloo di ko bewee nag di ko tooñe waaw boobu mi ngi mel ni jigéen ju baax ñu may fa saay saay de yàgg-yàgg sëy ba dafay tas rek waaw ndax duñ mën a ànd tey tey ba lig waande koo xam ne yow ko yàgg-yàgg waaw daf koy ñàkk rek rek yonent daana wax sallallahu alayhi wa sallam yow Aysa rafetaloon dëkkandoo ak xéewal ak yàlla de ñëw na kum taw gannaaw ba mu dellu si de yàlla na ne bëri na ñooñ dëkk ñoo xam ne dañ doon dañ doon rëylu waa ak fuukaree xéewal ga leen yàlla jox de yàlla xarak leen nag ba seen dëkk di jant yoo xam ne bu fa ni dëkkatee rek borom bu di wéy de bokk naa tam nekk na moom alwaari dina ñu di way doon ñu de man nag maa doon yëpp ba nga xam ne xarak naa leen de bu maa kaanal lépp rab bu ko borom sa muuri dal xuraa di aji xarak ñun dëkk yi ataa yabasa bal ba mu yónnee yu mu ah yaa ji màgg seen rasoon ku yónnee yàlla du alal àddina mukk lu may ba te yónnee ay yonent yoo xam ne ci dëkk yu rëy yi daa leen yónnee waaw yu mën a jox yonent ak yàlla suñ ko gëmee ba ama suñ ko gëmul nag yàlla sax leen ah alal de yàlloo dana mu jàng aleen ci ñëw ah dina alxuraan suuf de ba ma ko naa ne ku nu mëri ci xuree yaa ji alal ñun dëkk yi ilaa waa alwaa ndara ñu yëm ko alimuna way wet lañu de du ma alak mukk waa ay dëkk du may ba nga xamee ne wet nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de mbooloo ji saaba yi ma sañu dugg ci géej daal ci suuf tund benn waay boo xam ne mu nga nekk kat këram këramam di fa jàll di ko rafetal julli rek guddi mu ne fanaan bëccëg ñëw ne julli ca këram ba waaw léegi moo ne ko eh li ngay jaamu du jëriñ du lor xamul sax ne yaa ngi koy jaamu na nga jaamu ki la mën a jëriñ mën laa lor bu ne ko booy xam sax sama nag ku bind la ko bu ne ñu ñu ñu màgg ñu jógee wax jooju ñu ne ko yàlla yónni woon ab yonent ñu wax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc ci moom ab téere moo ñu xamal loolu mu ne na yonent ba ñu ne ko jërëm naa dina waaye jërë baa ngi def mu daal di jooy ba bëgg a dee dañ ko doon yonent jërëm naa dina ko laale ba ko laale lépp jërë du fi def nag ñu jàngal ko lëf ci alxuraan mu daal di jëbru leen ba mu jëbroo nag daal di ànd ak saaba ya dinañ ko jàngal ñu lislaam de ñu dugg ci gaal te wàcc ci dëkk gannaaw mu ko saaba ya la jàngalee diine comme lislaam yi de waaw xamal ko diine nag ñu ne nañ dajale lëf ci alal jox ko ko ndax mu am lu mën a dundee balaa ñoo tax ba moom ñu dajale dajale ba dajale alal ju bari ñëw ñëppal yi dañ la ko bëgg a jox nga mën di jiwee mu ne leen tegtal ngeen ma yoon woo xam ne yéen awu leen ci de yàlla li nga xam ne moom moo doon xamee ci tund ba te booba maa ngi ko réere di jaamu tund moom di ko toll di dégg bëccëg mu di ma sànq tey ma xam ko jàpp ci moom ngeen di mu doon yóbbal yéen day yoon ngeen ma tegtal awu leen ci yóbbu leen bëgg ma yàlla moom du doom du dem la jóg وما أوتيتم من شيء من شيء إلا هو من الله ومتاع الحياة الدنيا أبدا إلى يوم القيامة lépp lu yàlla may di jaaduna yóbbal rek la jaam bi dafa yóbbaloo ay fan rek topp mu dee wala yóbbal ba jeex wa maa inda Allaahi la nekk fa yàlla ci biir yool xayrun moo gën waa xaata moo gën a def rek yool ak yàlla nag moo gën suuf te mu gën a def luy def su fekkoon ni moo luy jeex ñoo yem sax luy def a gën sakka ba nga xam ne moom moo ko gën fuuf ci mbell kenn ko ci melo ba noppi te moom du jeex xabalaa parce que noonu tere ngeen kanu xam ne luy def moo gën luy jeex addina ji ñuy kër-këree bu ko jaam kër-këree ba am ko yaar ñi rek ko kër kenn mu dee wacc ko fa wala lam dajale woon dem sangu wacc ko fa moom ñu yaar leen mënu ca ñàkk da ngay dajale xaalis ba mu bëri gannaaw ba lépp su taaroo nga dellu ñàkk dellu fa nga dalee woon wala nga dajale ko ba mu bëri nga dee waccal fa ñeneen de yooyu yëpp dara dara jaru ci ñàkk sa borom la su fekkee ne am nga borom bi nag am nga loo xam ne ci jaar mu tëddee sooy boo am alal sooy boo ñàkk alal wala am nga borom bi yow daal kër gi déedéet la ak man waa naa aw kër dayal ko waa dal dayal ak man bu dee aja rafet foofu moom laa xëy yaa ngi dajale moom moom te dayal ba mooy aljana te man matal naa aw naka ko yóbbal nañ ko matal a di ñu naka yóbbal yóbbal dundal àdduna bi de ma wota ma yamal kaama di te te te tenk yàlla moo bari naa nekk lam te ñu teewal ñu jëm ngal ma de ndax koo xam ne yàlla daf ko jox yóbbal àdduna rek koo xam ne yàlla daf ko dayal aljana te mooy ci gëm yàlla xam ne moom su dee dem aljana ndax ñu doon nag koo xam ne may nañ ko yóbbale ba dina rek mu yóbbale bàyyi fan ka mu dee dem safara yooyu yaare moomuñ de aw xay bu aw xay nit soo xamee ne dee dem aljana cay topp waaye hiw ci hiw nit su fekkee dee dem safara cay topp de éefar lu mu mën a nekk ci àddina nekkul ci xay nekkul ci jàmm éefar lu mu mën a am ci àddina soo xamee ne safar la jëm rek ay dal na ko ci biir lu mën a nekk ci àddina dugg ndox ma xari ma xari ba xam ne su dee demal jànna ay dalu ko de bu koy jëm yàlla yàlla dana jàppam jaam boo xam ne yéefar la woon daf doon xewu ci àddina ñu sànni leen ko ci safara mu nuur benn nuurin rek ñu sànni ko ci safara mu nuur benn nuurin nukki ñu ne ko ndax mas laa xewu ci àddina ñu ne mas daam musuma am xew ci àddina musuma baneexu ñu ñu jaam boo xam ne mis ci ndawam ci àddina doon wañto ne sànni leen ma ko ci aljana benn waaw waxtu rek ñu sànni ko taxawal ko ne ko na nga def ndax mas laa wañto mu ne mu man musuma musuma xam luy wañto xew bi musuma jógeen rek boobu xewal moo jara moo jara sakku rek luy dox diggante jaamat loolu rek yal na yàlla musal jaam ba ci loola muy naa di mbéb muy xooleen moom yàlla fa yaqulu tam wax ay na surakaay de ana naka ana way bokkaale sama alla dina ñaaña kuntum nekkoon ngeen te su mu rëdd nee na way bokkaale sama rek ana nag yàlla yi ngeen waxoon ne ay yàlla lañ naka man indil ma indil leen ma leen ala wax la dina ñaaña xaq war naa leen ci mal xawru ba gëm gëm ba bii xaraf safara te mooy sang ya ñu noonu réeral nit ñi rabbana ya borom ko awuraay yi de la si nañoo di ñaaña ak way naa dawal na leen yow yàlla ñu ngi suñu way topp yi ñoo leen doon dawal ci àddina ak way naa moom dawal na leen sañ daw ñoom itam sama ka way naa ca nag daw suñu sañ leen dawalee kat ñun waaw forte wuñ leen te ñun dañoo daw woo leen ci daw ñoom it ñu nangu rek ñoom ñu ne tabarana bañ ka naa nuñ lay ca jëm ci yow léegi itam ñu ngi lay seede loolu ñun jotew ñoom ñoom dara ci àddina maa kaanu nekk ñoom yaa bu doon leen jaamu yaa naan ñu de ñun sax mosu ñu topp dara lañ jotee ba ñoom yaa ngi ko fay jaamu nga defaral loo ko waaye bu ñu di dugg ci nañu ñu doon seen sang waxee la ko waxee bu doon xoolee ko kaatuma ay yàlla seen yàlla na leen xoolee te dañu leen doon jaamu ba taa wuñ fay xoolee wala nga fay ñu boole wuñ doon ñu leen de bañ leen xoolee benn te dem nañ ñu doon ñu tudd yàlla de waraaw dañ gis ala saa ba mbugal ma ñoom ñëpp ñu jana safara ba xam ne ci lañ jëm ñu doon jaamu këram ak seen këram ñëpp de la wàllu mbënd naka ñoom daanoo nekkoon nañu yàgg doon nañ di jub kon gis ñu ko de suñu jugoon ci àddina dem gëm yàlla wéetal yàlla kon ñu ngi safara wala ñu ci àllaaxira de te pour jàngatal yow ma ñu naa di def ba dana mu xooleen ba yàqulu tam wax maasaan lan laala ak jëf ñu gan kon ko woon al mu sëy ñu yónni na def na yàlla ooyee xeet yëpp leen wax dana lu leen tontoon seen yonent bañ leen ooyee jëm ci wéetal yàlla ba am yett nëbbu xale yi ñoom lambaaw solo yi di wér mu sëre ñoom ñëpp ci ñaa tontu lay tax a mucc réer la de mun laa mu fee tontu le yow man ñu defal coow ñoom benn amuñu benn benn solo bu ñu mën a amee yoon mucc rek boobu ñoom laa tasaaroon laajante ci ñu dala xew foofa juli loolu dala xew ci àddina ci àddina dañ lay laaj doo tontu nga wax ko sa morom ne ko luy tontu li mu mu wax la ko foofa nag kenn du laaj kenn dara yëpp nga ne fët waaw maa man taaba ndaar ka tuub nangu ci sa ci kéefër waaw ma tam dëggal wéetal ak yàlla waaw ma tam def faale an fara faak naa fi de faa faa ñàkkoona amaana bu mu nekk neen mu diina ca way way way mu diina de koo xam ne gëmoon na yàlla te wéetal ko tey jëf jëf jiin koo ko day mën naa mucc rek wala bu ko borom sa yàlla ko dana mu bind maa yi saaw mu soob waaye saaru ko muy tànn de yàlla nag mooy bind lu ko soob mooy tànn lu ko soob maa kaanu nekkul doom ñu ne alxeeratu tànn de waaye mbindee nii amuñu tànn de yàllaay tànn lu ko soob defu tànn ci loxo jëriñ defu ko ci loxol niitaay defu ko ci loxol malakul mawti defu ko ci loxol Israafil de defu ko ci loxol Adama defu ko ci loxol Nuun defu ko ci loxol Ibrahim defu ko ci loxol Yaquba defu ko ci loxol Muusa defu ko ci loxol Isa defu ko ci loxol Muhammad sax ci gën ci mu néew rek mooy tànnal boppam lu ko soob moom ñu bind yàlla defoon tànn ci loxol Jibril ak Mikaayil kon ñu tànn Haaruut ak Maaruut rek di doon seen bopp su fekkoon yàlla dafa def tànn ci loxol malakul mawti kon mu tax dem tànn ci gàdde waaw ki nga xam ne moo gënoon a am doole jaaj ne ni doo Isa ne ni doo malakul mawti kii sa bakkan yi yàlla defan tànn ci loxol Israfil kon bu tànn Iblis de ci sandaaram la bokkoon de yàlla defan tànn ci loxol Adama kon mu tànn Xaabil de yàlla defan tànn ci loxol yonent yàlla Nooh kon mu tànn Kanaan doomam de yàlla defan tànn ci loxol Ibrahim kon mu tànn Asara baayam de yàlla defan tànn ci loxol Yaquba kon mu tànn Amalek bi ak tubaab yi moo leen jub yàlla defan tànn ci loxol Muusa kon mu tànn Firawna baayam de yàlla defoon tànn ci loxol Isa kon mu tànn xawaari yi day tubaab yi de waaye deful tànn ci loxol ko mu defoon tànn ci loxol Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mu tànn Abi Taalib mi dayoon sànq de nga mën ko tudde woon waaye yàlla ay bind di ko toog mooy tànnal ko toog boo leen bindee yëpp ci jaalam ak juróom-ñett la yàlla bind addina yàlla ak ra dara la ci ci jaaram yooyu de juróom ñett yëpp yàlla tànn na ci yeneen ci cosaan yi rek ndox ak suuf ak safara ak jaww tànn na ndox ndax muy na laabal yow jaam yàlla bi tànn na suuf ndax mu nekk ni sa jàkka yow jullikat bi tànn na safara ndax mu gën a toggal ñam ngay lekk tànn na jaww ji ndax nga mën di ci noppi rek yàlla tànn yeneen ci waxtu tànn na gannaaw ci muy sa waxtu reer gannaaw gee muy sa waxtu nelaw njël muy sa waxtu jooyaalee sa borom suba muy sa waxtu jàng kaamil bi de ñu tànn ci malaayika yi yeneen tànn na Jibril bi la indil alquran tànn na Mikaayil daanaka mën nga jiwu wërsëg tànn na Israafil ki nga xam ne mooy denc sa karne jëf yi tànn na malakul mawti ki nga xam ne moo xala ngëb soroo bi rek tànn na ñe tànn na ci xibla yi ñenant arab ak kursiyu ak bay ci maamoor ak kaaba bi tànn na la arab muy sa barabu ñaan mooy tax booy ñaan di talal sa loxo jëm kaw tànnal na la kursiyu muy barabu yërmande yàlla ji tànnal la bay ci maamoor ki nga xam ne sax ñu denc sa jëf yi tànnal la kaaba bi muy sa xibla boo xam ne booy julli waaw fu ngay julli jëm de mu tànn ci téere yi tawreet ak injiil saboor ak qur'aan mu def qur'aan muy sa téere yooyu bokk ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tànn ci ndox yi ndox mu balloon te diggante baaraam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tànn ci pàcc yi pàcc ba nga xam ne fa lañ dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Madina tànn ci weer yi ci biir gàmmu gi nga xam ne ci la yonent gane gane àdduna sallallahu alayhi wa sallam sa borom mooy bind lu ko soog te mooy doon lu ko soog moo tax de jaam war na tànn dara su fekkee jaam war bëgg naa tànn daal na tànn ñàkk a tànn te na na daw sax lu muy tànn loolu te na daw lu muy dawee loolu de na jébbal nit ñëpp yàlla ki nga xam ne mooy bind te mooy tànn loolu moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam daanañu xamal istixaar na muy xamalee saa teere jaam war a dugg ci mel njëkk lu mooy tànnalu na julli ñaari rakka boo noppee ñaan yàlla xamuma yaa xam yàlla nga tànnal soo mën nga julli sa xatee bu julli nga sax lu gàtt gàtt daal waxal ne yàlla yàlla nga tànnal lu tànnal sa bopp mukk dugg jaam xamul dara war nga tànnale yàlla mi nga xam ne moo xam lu nekk kooku rek moo war a tànnale wala mu ko borom ba yàlla ko dara mu bind maa ngi saa wala mu soo ba yàlla baal dara mu tànnal ko mu soo def yow su ko bon tànnee kasa ba nga tudd ñun ca am de al kan bi nga xam ne tànnuñ seen kottu ma ngelaw nañ sa ñetti téeméeri at waaw ci xew rek lañ nekk de maa tànn nekk doom ñu jaamee alxeera su tànn subhanallah ñu kasa bi ko taala ta mu soo amee ci ko ni ko gën a bokkale ko wala bu ko borom ko yàlla mu dara mu xam maa tukki mu la nga nëbb ko ci dóoruhum ay xol seen de yàlla xam na nit ku nekk la nga nëbb ci sa xol te wax dëgg sax yàlla xam na ko ren dem kéefar dem gëm de au moins yow dañu naan yow dañuy sañal ko de ku nekk la muy sañal di ko wax ci làmmiñam yàlla xam na ko de oo moom allahu moom di buur laa ilaa de buur booy jaamu ci dëgg yi daa woon dara moom doo ñaan na salaam bu cant ci lu laaj ci àddina wala àxira de yàlla àxira de yàlla moo am cant ci àddina mooy jëm ji nii nga jàngoon ci àdduna moo am cant itam ca àllaaxira rek dox boobu yëpp te gën a dox aljanna jëf amul fa kenn du fa julli kenn du fa war kenn du fa def kenn topp yàlla lu may cant yàlla rek foofa moom du dañ de dox boobu yëpp te gën a dox aljanna jëf amul fa kenn du fa julli kenn du fa war kenn du fa def kenn topp yàlla lu may cant yàlla rek foofa moom du dañ de wa axiru da'waahum an alhamdulillahi rabbil aalamiin wala wala ñaan na sa alxem ci mu àtte bu daal di fël yàlla moom àtte lu mu àtte yéen ko tax mu koy delloo de pour yow na def na delloo de yéen a ngi leen jëm suñu la pour waxal yow Muhammad ñaan ñooy Makka alaay bi mu ko rëdd leen ma jaana laaw ndem def na yàlla aleykum ci yéen lay def dugg ferma dal muy aji dëkk bi waaye yow xiyaama di dëkk tënk yàlla man ilaa woon na jaan yàlla xayru laay pour yàlla yaa di dugg dana mu di keneen dugg yaa yéen ci dëkk bu ngeen di sàkkoo dund wax leen ma si yàlla nangoo woon tey dëkk bi def dugg rek ba tey ko yàlla mu ne bëccëg doo am ci biir la maye kon wax leen ma ku leen di jox bëccëg bu ngeen di liggéeyal ngeen di jinde afalaa tasma'uun dara ngeen dégg dégg dégg déggalu ba dellu wari jeefar ngeen déglu wax yàlla ji dégg settantal ko ba xam ne pour waruñoo jaamu kenn ku mooy yàlla pour waxal araaytum solo si leen ma jaara laaw dem def na yàlla alaykum ci yéen naara bëccëg sama tan mu yàgg dëkk bi ilaa yow kay ma ci ci ci yàlla man ilaa na na gan yàlla xayru laa pour yàlla yaa ci sunna mu ci ko bu dee ci ci sa ko da nga nopp ci ci mo de wax leen ma su fekkoon ni yàlla daf ne léegi nag ma yëpp mu ci bëccëg rek laa leen may def leen bëccëg kat kat ba tënkam yàlla bu boobaa en ce moment yëpp ci yéen noppaloo de afalaatum solo de très bien jëf da xam ne ni ngeen nekk njëriñ la def njëkk na leen jéggi leen yéen ci mën a gis leen kii ci ñaare sama wala basar la waaw ak jéggi lañ jiital gaa yi mën di gis ànd ak teewal ak gis lii rëy rëy teewal ak ma jéggi lu kooku la teewal ak jéggi rek dama naa ne gëm yàlla daaw jéggi la tax a gëm yàlla dañ ko dégg rek waaw ko gëm yàlla moo tax ku jiitu gis mën naa gëm yàlla waaw yenn kàddu yi mën na koo gis naam waaye ñu mën naa ñàkk a gis wala fi te dégg ci kàddu bi yàlla yi di ko tax a gëm de moo tax waaw dégg rek doole bi moo tax bu yàlla tudd ñaare waaw dégg lay jëkk a tudd yàlla mi nga xam ne moo leen may guddee bëccëg ma ne su fekkoon ni dafa def waaw dafa def guddi rek bëccëg amut ana ko leen di jox bëccëg su fekkee dafa def waaw bëccëg rek guddi amut ana ko leen di jox guddi amul de lu tere ngeen dégg te gis te man xam nga waaye ci yërmande leen sooy na jaara la mu gudd la ñu ne leen de gudd woon naa la dëgg waaye ci baaxam xam naa ba mu tase bu doomu aadama ji ne soxla na gudd soxla na bëccëg mu dundal leen gudd dundal leen bëccëg bu ko soo ñu ne noppalu bi ci guddi ndax nga noppalu ci guddi wala itam sax wala am na yan kàttu yu nga xam ne ci yow ci bëccëg ci bëccëg yooyu ngeen dem liggéey yu nga xam ne juróom rek wala alati ak parce que ma ngeen ko defee wala ngeen yàlla ñu ngi bind bëccëg ak guddi guddi nga di ci noppalu bëccëg nga di ci sàttu dafa bëggoon nga xam ne lii ci ko def seen seen yëg na te moom rek jaam nga jaam ko def waaye yéen ngeen dem waaw weddi yàlla sàttal ko ay bokkaale parce que jàngatal yow may naa di bés ba dana mu woo leen fa yàqul tam wax ay na surakaay ana yàlla sama ana bokkaale sama day mën a ñaanee kuntum ne man ngeen te kon kuntum ne kon ngeen soo ko mën a di ne ne ay yàlla lay wan leen mën a bokkaale yi ngeen waxoon ne ñoom mën a bokk ay yàlla lañ ñu ci man nañ ñëw nag wana saana dañ génne ñun ci lu indi ñun ci ko jigéen peut être dañ leen aju teere waral leen ko mooy yonent bi teer mu nekk ñu taxawal seen yonent mu teere waral leen bokkul naa doon waat a doon leen buraanakum lay leen de yàlla nañu doon bàqal yàlla bokkaale nañ leen di leen lay waa ni moo tax xam xanaa naa xam naka dëgg dëgg am yàlla lay ñu am yàlla foofu lañ sama xamee nag ne dëgg dëgg dañ doon nar waaye yàlla yu dëgg mooy yàlla de kon dafa xam ne yéen ñoo xam ne dañoo doon nekk moom lañ ci ci nar rek su ko defee nag xam ne moom lañ doon moom lañ doon jaamu yëpp fàttu leen de. kon tey bu nekkee ci dara nga xam ne yàlla amul bokkaale am boo xam ne nee na ci jëriñ la ci des bëccëg boobu ci bëccëg boobu da ngaa war a fàttali wër kër ci guddee nga noppalu wala ci bëccëg boobu nga liggéey pour borom ñu loo dundee ci guddee nga liggéey sa borom de yonent ne ndax xam ngeen nu ndey Daawuda wax Daawuda yaay yonent yàlla Daawuda ndey Suleymaan ndax xam ngeen nu ndey Suleymaan wax Suleymaan yaay Suleymaan nu ne Suleymaan yow sama doom bu bëri nelaw yi guddi de bëri nelaw yi guddi dafay tax a doon mu ci alaakara rek alaakara xam-xam yooyu yëpp day jaam yaa ngi ko fàggoo ci guddi gën a bëri nelaw moo gën a néew de lu mu am ci àllaaxira su fekkee bu fekkee yaa nga topp sa bànneex ci lekk ka naan ak sëy bu guddee yaa war mu nelaw ba bëccëg loolu day bàyyi ba ñu sax mën nañ ko dundee ci àddina rek nit ki nag moom lay kenn mënu koo xam ne bàyyi ma guddi mooy àll bi nga xam ne ci la jaam mën a wéete sotte mbir rek foo topp bëgg naa ko joxe wéet ak moom wax ak moom wax joo xam ne kenn fekkee ko yàlla muy topp li nag yàlla mu rëy ñu ana ci banaar lañ ko mën a fekk ba wax ak moom yàlla guddi rek rek moo tax bu guddi jotee ba ku nekk ak buntam aragal ya daal ñu xëcc seen njaganaay nelaw jàmbaar yi ñoom taw seen i lal di deyaale seen borom ñu ngi bëgg sedd te jaata juróom mooy na rajo ya sama rek mu fasan wa sama rek moo tax raxaa taale mu suma ma wax ko yàlla mun projet ak yi su fekkee ne tey guddi lépp da nga ko nelaw boo duggee téeméeri at te januwaale bi mu nelaw nga ko juróom bu rek nga am moo tax bari na koo xam ne guddi na ñun maa di bari te fekk bari ñu ko nelaw de yëpp ci bëccëg bi nga ñëwal ko topp loo ci yàlla guddi gi lépp nga nelaw ko da nga dund téeméeri at boo demee ku jeex nga ko ko moo tax bari na matat mi ko ne bari na itam ko ne boo xam ne mat la de na xaaroon na ka xaaroon na kaan na fanoo man xaw Musa ji ñu ko bugg yonente yàlla Musa na xam xaaroon ci ñu yonente yàlla Musa la boppam de doomi bay taxam la wala doomi bay taxam gëmoon na ko itam ba paxaa sam teew ale ñoom gannaaw gannaaw mu teew rëylu ñu alal ju bëri ju ko yàlla jox waa tey naa jox nañ ko ñu ko loo ci ci koom maa lool dina ma baal di xaaral naka caabiam ya rek nga sonnoo ba nga mu diis juróom ba ci borom juróom bu ne xoo bi yéen borom kattan de xaaral na bëri woon naaral ba nga xam ne man nga jiwam yaa waxal leen yaa ko farfaram yaa su ko tëjee caabi ja ay jëlem jëlem la koy def ñu ne juróom ñaar fukki jëlem ñu ne ñu ne fukki jëlem ñu ne fukki jëlem gannaaw boo xamee ne woyofal na nañ ko defal caabi yu gën a woyof bañ ñu ci defal ko caabi yoo xam ne ter rek la boo doon benn koy def ngir alal ji bëri de mu deew nag daal di rëylu daal di ñaan yonent yàlla Musa deew ngaa ngi tàmbalee ji ba tawreet wàcce yonent yàlla Musa dafa xam ne suñu suñu tawreet Haaruna suñu mu xamal ko Mariam ci yenn wala ko doom suñu suñu xamal ko xaaroon na de xaaroon na moo doon denc ci yenn yenn yàlla muy saabu mu ne ko suñu bi nga xam ne xam nga ko nag mu ko xamal de mu xamal ko suñu ba mu xamoon mu boole ba mu xamoon muy ñaari suñu bi nga xam ne suñu yaaw bi nga xam ne mën naa ko suñu mën naa ko suñu bu mu bu ko neex mën na ko ko suñu wuru ñu ne te yenn yàlla muy saa suñu bàmmeeloon yoon ci suñu bopp ndax boo yonent bëggee yonent yàlla Musaa ba mu bëggee gàddaay ak bani Israayil dañoo pare mënuñu dellu Misra rek Jibril ñëw ne ko Yuusufa dafa waxoon ne def bi bani Israayil ci génn Misra nañ ko tudd yóbbaale ko boobu test bi waroon ne dañoo ko yóbbaale ko nag doomaa xam yow nag mu ne ko xam ko may dañoo ko fa nekk ñu fekkal ko jigéen yoo xam ne suñ la doo ko ñeent téeméeri at ne ko jigéen jooju rek xam ñu duloon Yuusufa rek mu dem rek mu màggat ba si maxa yonent yàlla Musaa daal def poñe doon ci ndox jox ko mu naan te jël jëlu si ak ndawam jëlu si mu wan ko fa nga xam ne fa la newoon fekk nii nii Misra lekk na ko Musaa bind bis mu laata mat ci ci xet ci xet ci dóor ci géej bi muy xer muy dóor muy xer su ma xat ci ba bàmmeelam ñu suuf ba mu sulli nag waxande wañ dafa muy dóor waaw xet ko ko mën a génn Misra dem et yooyu ñu bindoon bis mu laata di ko wutee bàmmeelam ñu suuf ah Aaroona daal di ko dajale moom waaw dem ci àll ba bu góor rek gis nga la mu rus nekk mu tax moo tax alal bu bëri ñu noonu la baax na ba taw rek wàccee nag yàlla yooyu yonent yàlla Musaa ne ko na nga wax ne képp ku gëm taw rek na mu yonent ci wëñ bu werte def ko ci baax bu gëm ndax su ko gisee fàttaliku asamaan bu fàttaliku xéwal yàlla ñu leen jox taw rek Musaa ne ko yàlla may ma ñu def mbubb mi yëpp mu werte dañ bañ def yeneen ci wàññi werte rek ndax loolu lañ ko xeeb mu ne ko yeneen ci wàññi laa leen sant yàlla ñu xeeb yooyu boo ko xeebee ba mooy ko ci da ngay demee ba yàqule mu ne ko yeneen ci wàññi rek laa la sant ñu werte ku nekk na ko def ci baatam bu ko xam ne bu xoolee gis ko yeneen ci yàlla mu saa digle loolu ñëpp def ko xaaroon ne moom loolu du ko def ah sang bu am ay jaam dina ci leen takkal ay xameeku loolu rek la Musaa ko def man lank na ma duma ko def loolu la jëkk a bañ gannaaw ba bari bari yàlla jàllale sadax ga jaamu yàlla yàlla yàlla santoon nañ ko def pour sant yàlla yonent yàlla Musaa fal fal Haaruna nee na ko amee de di doxal sadax yooyu Haaruna ne Musaa ak yonent nekk ci sa loxo jaamu yi ne ci loxo Haaruna man nag mu ne ko yàlla na ko digale noonu mu ne ko yàlla digale la ko dara da ngaa faral sa mbokk rek Jibril ñëw ne ci dina kana sant yëpp ku nekk sant yëpp Haaroon na sant yëpp sant yëpp boo daldi jot bi waaw daldi def xop ci seen kanam ci saasa Haaroon ne ko loolu tuuti na ci sa njaboot rek xam nga wax na ma jabar sax ñu la tàmbalee dee moom la yàlla wax ne ba taxaatam deew alee ci ñoom waa tey naa joxoon nañu ko ñoom ci wàllu biir tool maa doon dina ma wax naka caaga yi rek la sax nu mu gën a ñu diisal di wax ba ci ndóolam njëriñ wala lu ko wëccu dégg borom kattan. wëccul jàngatal xaala ba waxee loolu ñaan ko xaw ma woon itam ña laa soxla bu jëkk itam ñaan ko waat ñu gëm yàlla ci bari Israël ñu koy digal digal ñu am doom ñu ne ko bu ñu ci xaala ci bari ci ne ndëgëm réeru ne laa naka yàlla laa yooyu bu lu mu yoral fa ne way dëgg rek waxtaanee fàttali ci ma attaque laa wax dama jàmm la ko yàlla ci alal daal gerte laa ko dafa gën a aljanna de dina ko war a mu rëy ñu la yàlla jox fàttu ji aljanna fàttu ji aljanna maanaam fàttu ji yàlla wala taw ko bul fàtte nga si ko dëkk ci nawet bi rek yaatu na bul fàtte sa jëkk ci aljanna waaw jëfal ñu yàlla alaakira yow waaw suñu koy la jëm ci nit ñi kama asana laa na tey la yàlla rek di jëm jaww wala fàttu bul fàttu bu yàq suuf dina la anaka laa yëngu du ma yoon ak mos dina ma yàq yére itam ñu digal nañ ko digal am ngay waaye booba jaww na jaww boobu dégg ndigal nee nañ ko buñ déggee àdduna yàlla bëgg loolu nee nañ ko fàtt àllaaxira ci àddina ji la yàlla jox àddina ñu ne ne man maa doon saare bi yedde rajine saare àddina su fekkee ne ci loxo waa ñu ngi nekk kooku lu baax la ndax ak jana boo xam ne dana ñëw nga xam boo ko dañee aljanna adduna jile mooy jeex jaan yàlla yi danañ yaxam boo baax aljanna mooy seen jàkk yi nga xam ne it dañuy jaamoo seen borom ba dem ci seen borom rek tax na loolu la ko ñu dem ci ne ko sàkkul alaaxiram bul fàtte def jëf ci àddina def jëf ci àddina nag kër yi firee nañ ko ay firi jëf ci àddina loo bëri ne bëri ne loo boole boole àddina lu tee sa wàll mooy yaari malaan yi la xala la xante ëllëg rek yëpp na ci sa bàmmeel loolu rek ngay yóbbaale bon nag loolu ay lu mu bari bari bul fàtte sa mujj xamal ne lu mu bari bari mujj la xam ne ci ñaari malaan rek yow bu jëm dëkk ba denc la foofa kenn du fa def ak yow wala def ci ci àddina yonent sallallahu alayhi wa sallam yeneen doomu aadama dinañ wax naa sama alal sama alal sama alal ma sama alal sama alal ji ngay alal ci moom ndax moom la ci dara lu may li nga lekk bareesal ko li nga wax doo nga xaral ko ak li nga ko defee ba mu yëg bëri bëri bëri loolu nga ci am wala nit loolu nga alam ci àddina loolu bëri de bëri de ci bi nga lekk teer bi nga sàngoo ak loo ko waxee loolu nga ci am de wala na si bakk na dunia aarisi ne mooy waxtu bi nga nekk de démb yooyu na te dootu dellu ci mukk ëllëg ay bële boo xam ne xamuloo seen saa dem de li nga am mooy lan mooy tey fi nga nekk wala tey li nga nekk bële de pour que sànq de na la ñaan de na la ñaan te bu la war yooyu yëpp digal nañ ko xaaroon na dafa lu baax ci biir yi yàlla defal ci yow lu baax bul fàttu ak yàq ci suuf xaaral mu wax ne na maa aussi soo naka la joxe moto waaye ñun aji nekk nañu jubloo xam-xamee yéegu nekk na man de man sama alal ji lew na ma xam-xam dina ko may sama xam-xam moo ko mayee bani Israel yëpp maa ci gën a xam tawreet man rek ak yow suñu arrêté di tawreet tax na de la ma xam te sama alal ji lew ñëw maa ko xam ne jaaral man maa ko maa ko fagor sama bopp de ñu ne awalam yàlla ndax xamu am na baax na kay ala ala ala kay ala ñun xam ñu jëf jëfam ne boo leen jëfee ñu jëfee man woo ko moom kat bi mu gën a kat ñun ko wootoon ci kattan waat ko day dem ñu bëri jamono ci boole alal Aarona ndax xamu leen ne ndax xamul ne ñu ko kon doole ñu ci en rek moo dee man yàlla maa leen alal ñu ko kon alal xamu ne man yàlla maa leen alal wala yow tamit yow laaj am ci moom yéen ci bàttal mooy bàttal yi te xeexal yàlla du ko laaj ay jëfam de xam na yëpp moo tax laaj bi ci tënkam yàlla pour taxawal lay rek la waaye yàlla du laaj dara ngir sàkk ko xam-xam xale nga dem génn moom xaaroo na xanaa xaw ma jënd dem ña di si nag yéen ñu waa ñu nekk ca taaram rek ñu daal di génn nag moom xaaroo na bu bu waraa juróom téeméeri fëtt yu góor dañuy war war waa yu ne ni war sol kër gi ne ni sol juróomi téeméeri fëtt waa yu jigéen waa war war waa yu ne ni war waa seen sakaay ñu dox ci ndeyjooram ñu dox ci càmmoñam dañuy fëtt a topp nag mu génn ci taaram yooyu ñëpp nga sol ariira ñëpp nga sol ñaari góor war ñaari góor daal yàlla ji nga xam ne moom la am jaar dina ne xaala wax na ci ne ñaa ngi ri dina danañu nama laayat bi ak ndara dina yàlla itam na lana elam na nekk ñaam ni sama wo jee kam la joxem na ko xaaru mu xaaru na rek ñu bëgg àddina ñëpp di ko ñeene waaye xaaru na elam dañu am lu mel ni xaaru na am de neew na ka moom ko asin borom jënde asin yi de aji law ko waaye xaaru ñu ne kat yàlla may na ko ci gaa dina ngeen a gaaw ci loolu ñu yàlla may na ko te yàlla may ko dara yàlla gëm yàlla rek la maye bu mu ko may rek tartale ci def yëpp dénkaane ci xamle rek la wa xaala sama wax na ci nañ ne roobu leen ma joxal na leen xam-xam way la kum taxoo leen ak gudd waaw bu laay yàlla yàlla kaar ñu ngi aji gën ñu mën a am nañu yàlla gëm na mu am itam jëf saale ande ci de wala yu la xaa boobu jox ko moom aljanna jëyu bu def saa gën la yow ñu ñu rek parce que foofu daa kon ñu waral ci xaaru na te di daal yi ak ci këram gën la danaa ba nu mu mujj moom xaaru na mu naa leen dee yàlla def ko nural ci suure xaaru na duñ dee noonu nag mu daal di jaru yoonu yàlla Musaa def dem ci yoonu yàlla Musaa jaru ñu bëri dañ di ko topp nga xamal ci bëri ji ah yàlla wàcce waral asaka ci bani Israël yoonu yàlla Musaa wax ne na xaaruna génne asaka alalam bi asaka ci ñoom ñoom seede alal jëlawal xaaruna lim loolu ñu bëri lawal mu ne lool kallaji ko ñu saa nangu xëy noo mu ne ko ci seen ci seen loolu mu bañ ñu ne ko téere bu ne benn ñu seet ñu bëri mu bañ ñu ne junne bu ne benn mu bañ ci dara ñu ko calculé rek mu alal ji bari ah mu ne lii garak rek la ñu saa daal dafa daw léegi buur la boo xam ne dafa bëggoon laaj dara dañ ne ban ñaare ñu ne ñu nii topp ngeen Moussa ba léegi fekk na ci seen kaw nag lu ko neex mu waral leen léegi nag dara dootul lu may dana nangu seen alal yëpp te dootul leen amati dara léegi nag nañ ko fakkal pexe ak ñu ne ko yaay suñu mag yaay suñu kër ga loo bëgg ñu def rek ñu def loolu ñu ne nañ fakkal Moussa pexe ñu ne ko man pexe lañ ko mën a fakkal ñu ne nañ ko fas ci jaaroo ah day noonu yàlla yi ci suuf suñ ko doon màggat ñu ne daal dafa ne ñoom suñ màggee nit ko màggat ñu ne ci ñu ne Moussa mii ñu ne ko ah loolu suñ ko waxee xanaa suñu mën a suñ koy mën a saxalee ah ñu ne saxal gën a yomb xalal ah ñu ne ko yaay suñ ma loolu loolu saxee rek d'accord nañ jaay yow fekk na jane kenn lawal nga ni njaara na ko biir xamuñ ci ko biiral xaaral na woo ko jox ko saa su ne ko am na daje bu ñu bëgg a daje damaa bëgg ci daje ba xamee naa la teewal ca daje ba na nga wax ne Moussa la biiral soo ko defee naa la jox sama genn wàll alal ji te naa la denc ngay sama jabar ndaw su ne ko ah wax nañ la yonent yàlla bi ñu ne ko rek dara ñëw ci te kon moo rek dinaa la denc nga bokk ci sama jabar te dinaa la jox sama benn wàllu alal di ko wax ba ndaw dana nangul Adama daal dajale bari ñu ay ngeen boo di gis sëñ loolu ma takkal saxe Moussa daal di ñëw ci yonent yàlla Moussa yonent yàlla Moussa ak ñu ci jotaa dana taxaw ci mimbar waade waade ne képp koo xam ne jaaloon na bu fekkee ne sañu danaa ko danaa ko danaa ko taw téeméeri yar bu fekkee ne sañu danaa ko jàng dëgg doom dee bu fekkee danaa ko ndoxam ko rey danaa ko rey benn ajjuma yonent yàlla Musaa waa de wax loolu rek mu ne ko ba yow sax amu ne ko ba man sax ah bani Israël wax nañ def de mu ne ko bani Israël wax mu ne ko ne ñu ne ñu jiral te seen xam ci dëgg yoon nañ yaatu biral yonent yàlla Musaa daal di woote tey ñëpp daje Aarona daal di war juróomi téeméeri ba téeméeri yi ci lañ yoral juróomi téeméeri ba téeméeri yi jamono waaw ñun ñëpp sol arira ñëpp woon seen i naaru góor ñoo ci jotaay ba nag yonent yàlla Musaa daal di waare wax la mu doon wax Aarona daal di ndaw si jóge taxaw wax li xew ndaw sa daal di jóge taxaw ne wax dëgg la man bàkkaar bi ma def sama diggante sama borom day na ma waaye di ko jiital yonent bi yàlla ñëw léegi ma ci fekk xaaroon na nii moo ma jox saa si indi loolu kay ñu ne ma su ma waxee ne Moussa ma biiral dana ma denc dana ma jox benn war a alalam waaye daal loolu ci sax mukk pour ma nangu loolu sama diggante yàlla waaw mosuma jàpp jote yonent yàlla Moussa dara xaaroon amu ko tontoon yonent yàlla Moussa daal di mer nag ba tawar ba bëri mu diwin solo di meraa noonu lay def daal di rëcc jot a borom ne yow yàlla meral ngir man meral ngir man nga li ma xaaroon a fekk yàlla ne ko jox naa la suuf boo ko digal mu def ko Moussa daal di sukki ne eh bani Israayila yàlla yónnee ma ci xaaroon na ma yónnee woon ci xaaroon de ci dëgg sa alal ko rek soren xaaroon lépp daal di suñ tamit da wàcc ko ko ñaari ñu rek dafa ne rek moom ñu doon daw yàgg dafa ne ñu topp nañ ko mu ne yàlla mu ne suuf jàppal xaaroon ñu daal di jàpp xaaroon jël jël jël jël jàll ba ñaari ba ñaari ba yore dàll xaaroon ne ko tuub naa tuub naa lent naa la waaw daga ñaari ñu dox suñu diggante ak jom ñu ma la jom waaw tuub naa Moussa ne suuf jàppal xaaroon waaw suuf ne jël jël jël jël boobu ñu sàngu waaw muy tuub di lent mi Moussa ne suuf jàppal xaaroon laa wax suuf ne jël jël jël jël baa ngi ci digg bi suuf jàppal xaaroon jël jël jël jël baa ngi ci mbëgg yi suuf jàppal xaaroon suuf war na ko ko bopp def waaw ñàkk jam gën a def na ko ci Moussa ne suuf jàppal xaaroon laa wax suuf ne ko téléphone moom ñaar ñoom ne sax ñaar ñaar toogoon ak desoon ak moom naa ko def ñoo la ko jëf ci comme te woon na ko gisal benn taxawaay yàlla na suuf ba gisal ko woon lu muy benn taxawaay ba gisal benn taxawaay la koy wane te jamono jooju ba léegi te boo xam ne ne képp jee xam suuf rek da nga koy jaaree taxaw mu daal di jaaree taxaw rek man la Moussa xeex rek xaaroon danaa beneen yàlla na koy teg Moussa yaa tax ko di la xaaroon leen ko léegi ak ñu la balu man lay sama sama tool nga ne sama balu rek ma baal ko waaw mer dina mer yëpp yaa tax rek ma mer ko ndax yonent bi yàlla waa di taxawal ci yàlla suñ ko fekkee noonu day diine ji rek lañ ko def yow daa meral yàlla ne wax na dëgg dañuy saa ne soo gisee xaaroon na soo gisee Moussa di muuram xaaru ci toogul moom la yàlla ne sax xam naa seen muural bii di xaaroon na bi daari ak ci këram nar na suuf këram daal moom yëpp yàlla muural ko ci suuf ba maa tax ne ku laal ñor ko muy jëlee ci mbooloo yàlla ko noonu ñu dañu dimbale ko ñu ay suuf yàlla de booba nag la wàccee ci moom mbooloo mu ñu jabar de dama tax ñëpp mu ñu ñu ko tëjee jawe tay na sama ñu ñu ñu fañu wa sa ta mu ci Allah sama ñu sama ñu ñu do ñu ma dal wa maraba ko ñu ci ñu ñu yaqulu ñu ak way dama ma ñu taanu la adana ka yalla yassu ñu ya ala ko so ñu ñu taanu ñu ko so ñu ba ñu ci jaam wa akru dama ñu ci ñu ko so ñu ta do yalla la ko ci ñu dara yalla dina ko ci ñu ko so ak ñu ko so rek lawla an nana mu gën a gën a ak laaw yàlla aale naa ci aale naa ci loolu am na noonu laa dugal defoon xéewal yàlla naa leen naa ci noonu wax ko ci boppam rek mu ragal ci naa ci noonu ndax am moo suñu yàlla sàmm toon ñu ñëw ci suuf rek na ko xaaral ñu rek ci suuf rek tere wërsëgam boo ko xaaral rek tere ko tax ñu ñëw ci suuf waaye gën a ma yéen daanaka daanaka dañu gën a bi waaye bu fekkee ak kàddu na wala ñu xéewal yàlla su fekkee xéewal yàlla daal waaw kooku yàgg yàgg du fexe rek wóor na tilka boo gën a gët tilka daaru boo gën a gët laaxira du gën a aljanna aljanna moom mooy ko na yàlla aadama def ko ñu def ñu ñaan ñaan laa yu ñu na mu wala wala ak kawaya na rek fu bay ko ñu ña wala fasada ci jaagal ak yàq de aljanna xam nga ñu ko moom ñi nga xam ne wut ñoo kawaya ci suuf wut ñoo yàq suuf de wala ak tatu mu bëri ñu sant ñu mu takkee na ñaan na way ragal yàlla de ñu dina am am wax ne amal fasaadu balaa ñu may doo mu ne yàq comme ne war na mu ko waaye war nañu ne ah loolu lay bakkan a war dara nga ca ku nekk bëgg na dàll mu rafet nit mu rafet waa war waaye bu rafet waaye fekk yàlla na mu loolu ne bëgg a kawe tay tooñ nit ña tooñante gi ne ci àddina yëpp xam nga ne bëgg a kawe rek la bëgg a kawe sa morom loo ko kawe bëgg mu jëm kanam meloo am ba mu jëyee danañ ko ko yàlla jox nga daal di ko bañ waaw di ko tooñ di ko fexeel waaw di ko jëw di ko rambaañee waaw di ko def lu nekk tooñante bi ci àddina yëpp bëgg dëng rek a koy indi mooy gàtt yëpp fa lay wër de bëgg dëng moo waral bi ñu nar moo waral jëw moo waral rambaaj moo waral kañaan moo waral xeex lépp bëgg a jàng rek a ko teg waaw sangay su mujj ci bëgg a jàng rek daal di mujj ci waaw la lay war ngir leen ne wala ko ba bu mujj dañ ko sant ngir bu tax nañu ne waaye rek ak yàlla ñu topp di gërëm yàlla te bàyyi gërëm ne man jaa ak bu gërëm bi hasanati ci laa ilaha illallah wala bil hasanati ci amuur fa dama ñëw na ko xayr na ñu gën xayr na abu amina bi dëgg moom képp bu gën baax mooy lu mën a doon ci bànqaas yi gëm yàlla yi juróom-ñaar bu kër ñoom juróom-ñaar laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah moo ci gën a kawe dindi lor ci yoonu jullit ñi moo ca moo féete suuf waaye xaas xaas buñ ci mën a doon boo ko diggee jullit bi dañ ci am ab yoon ne boo xam ne ni ñu daal di fukk ba ci juróom-ñaar téeméer ba mën jaa ko diggee ñu xëyaati ci ñaar téeméer wala ñu saa yëngu xëyaati na ñaar am nañ ko yaa ñaaw tege ila maakaanoo la rabbe lañ ne kon yàlla na doon jëf rek bu def lu bon nag benn benn lañ koy fay rek lu bon loo def ñu bind ko benn yoon soo ko bon yi baam juróom benn saa lu baax loo def ñu bind ko fukki yoon la yonent na ko sore ñaan na koo xam ne ay benn bennam dem na ko ba ay fukki fukkam rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kooku ko wasal wàcc na ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bañ ko génnee Makka muy kàdda ana Seydina Abubakar baag bi ci jox ko mu taxaw jubloog Makka ne walaay dëkk bi yaa ma gën a jiitu ci wante tamit ñu ma bañ ñu ma génne ñu ma génne ñu yow du ma génne ci yow waaye yow yàlla génn ñëw ci dëkk bi nga xam ne man moom laa gën a bëgg ci dëkk bi yàlla na ñëw ci dëkk boo xam ne yow moom nga gën a bëgg ci dëkk bi yàlla yóbbu ko Medina moo tax Medina gën Makka rek ndax Makka la yonent bi gën a bëgg Medina la yàlla gën a bëgg rek dina yàlla gën a bëgg ñu koy ba nga xam ne nag ñu saxal ak Makka boobu jaar na tamit jara bu waxee ne inna na ka yàlla mi nga xam ne farab la wàcce na mooy ci alquran alquran la rabbi baaji delloo lay raamaari nga jëm makka rek yàlla mi wàcce ci alquran fukk na de faw da nga dellu makka rek amul fukk rek moo tax yonent na bokk na ci gëm yàlla topp sa réew topp sa réew ci gëm yàlla la bokk ndax topp sa réew moo tax àdduna yi dund ba tey ci biir rek nga dëkk bu gën a dëkk waaye du dara rek nga bëgg ñu gis nga def su fekkoon nag ñu bëgg sa dëkk nekkul ci yow kon te nit ki gën sa dëkk rek nga taxu te bon adduna bi bon bari dëkk yi jant de waaye nag foo mën a dem waaw lu mu gën gën sa dëkk lu mu neex neex ci yow rek sa xol moom waaw dellu sa dëkk rek nañ ko gënee noonu la yàlla te xarañ boobu la yàlla sa xale adduna moo tax yàlla ne moo tax yonent ne bokk na ci gëm yàlla topp sa dëkk rek moo tax yonent ci dëkk Makka dañuy wax ak ci saaba yonent saa yoo fekk ci yonent Madina mais en tout cas ñu ko laaj nga ne ko naka Makka def naka Makka an xeer a wet pour yaa nga ne def ba mu sàll ba ànd sëkk Makka nga ne mel nii ma nga mel naa mais en tout cas daal di jooy yonent ne ko bàyyi ko bu ko natt rek saaba yi ba nga xam ne dem nañ Madina ñoom ñëpp dañuy way di kat li ci Makka waaw di jooy Madina rek di di jooy Makka rek te yàlla ñaan yonent ñaan nag ne yow sama borom ñaan naa ñaan Medina na te Ibrahima ñaanoon ñaan Makka de yàlla nga yàlla yàlla nga sabbal sama saaba yi Medina bu raw nañ sabte Makka te nga leen barkeelal ci meññatam Medina yàlla nga leen barkeelal ci mujj Medina ak saayi Medina yàlla nga def waaw kuréel nga nga def ci Makka ci barke ak kuréel yàlla nga def ci Medina gannaaw wala saaba yi daal di bëgg Medina nag te yàlla nga taxal tàngaay yi dina doon Medina dina doon dëgg ak waaw bu fa nekk rek di feebar yàlla ne yeneen ne yàlla taxalal feebar bi dina yóbbu ko Jufa mu taxal ko yóbbu ko Jufa moo tax Jufa bu ko xanaan di feebar ngay xanaan ba ba di def Medina ñoom ne ci jàmm waaw barke boobu yeneen te ñaanoon ca Medina tey na dëgg buute waaw lu tuuti soo ko fa lekkee mu mu doy la te soo añ doo reer soo waa Medina sax waaw xañ reer lañ ko tuddee ndax soo reeree soo añee doo soo reer dëkk bu nekk nag Madina ko dàq yett yett yëpp lekk ci Madina ñam bu mën a daw moo gën a neex ñamu beneen dëkk naan ci Madina bu dee ndox sax moo dàq nga naan ci beneen dëkk nelaw ci Madina moo gën a neex nelaw ci beneen dëkk war na Madina daal ngay mel ni yaa ngi ci aljana waaye terewul yàlla na yonent bi na xalaale loo mat ak ñoo xam ne moom nga fa dugal jëlee te dalal na ko dalalam boobu kon waxal rabbi borom sama alal maa ji xam man jaa gadi terewul bu daa jëm ci boobu waa kaamoon ci dalal na ñëw terewul réer mu jëm dara ci bëgg yàlla xam na bu na ci yoonu jëm te mooy yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam ak ñu ko topp rek tere ak ñi nga xam ne dañoo réer waa matal wa kunta lépp la woon sa joodi yaakaar an yor xaa ku sànni fan yi lay ko jëm ci wàllu kitaabu alquran de yonent sallallahu alayhi wa sallam mas a yaakaar ne yàlla dina ko jox ak yonent wàcc ci moom téere de ilaalu fi nekk rahmatan lil aalamiin di rabbi ko ci borom sa wala takunanna waaye bu nekk sa yéen ngay ji bay ci ne joy nga ñere bo nak bu dimbale benn yéefar de gannaaw jafe jàpp ci rek ca topp gannaaw lëndëm leer rek a koy topp gannaaw jàqare yër yër rek a koy topp yonent booba muy génn Makka yàlla wàcc ci moom laaya ji ne ko yàgg yàgg dana la delloo Makka booba naa waxoon na ne dana delloo ci Makka rek waaye dellu na Makka ci bëccëg moo tax jàqare joo mën a nekk bu na am yërmande yàlla jàqare ji nga xam ne yaa ngi ko ngoonoo yàlla mën na caa teg ab yër yër de benn waay dafa mës a dugg ci gaal gaal ga foo moom mucc dem ci aw dund wu nekk nga dugg géej ga ci sa dund xetoog benn dëkk ci sa dund xetoog benn doomu aadama mu ne man balaa maa dina ci suñu dëkk daal xanaa baa xaañat day jaaw bu dégg su koy tontu ne ko amaana ba jàqare gi nga xam ne yaa ngi ci bonam ko yàlla mën naa def ñu ne rek naa ko rek wóoru gaal ropp ko ñu daal di ko ñu ñu ne jagaal ga dem ñu ci seen lëkk rek la ka nga xam ne yonent delloo na Makka moo tax bépp réer boo bépp jàqare boo mën a nekk pour naa ko yërmande yàlla